aqida maanaam ci wàllu pas-pas wàllu aqida fan lañ ci toll ci alquran ak sunna sunu pas-pas fun ci toll ci jëlee ko ci alquran ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa su boroom ngi wax ne kaana naasu ummatan waxida nee na nit ñi de cosaan benn xeet lañ woon benn pas-pas lañ yoroon booba bokkaale amul waaye ba ñu demee nag ba tàmbalee bari nag yeneen i pas-pas tàmbalee dugg si fa baasa allahu nabiyin mubashirina wa mundirin yàlla di yabal yonent yi nag ñuy bégle di xuppe wa anzala maahum alkitaba bilxaq li yaxkuma bayna annaasi fii ma xtalafoo fii mu wàccee ci ñoom téere gis nga kitaab rek la koy téere tudde téere yi yonent yi andi yëpp tur yi mën naa li mu mel li ñuy jàngale lenn la moo tax mu ne mu wàccee ci ñoom téere ngir suñu boroom tabaraka wa taala atte diggante nit ñi ci li ñuy juuyoo ndax suñu demee ba ay bànneex dugg kenn ku nekk di wax ne lii moo wér kii ne lii wérul la leen mën a atte mooy téere borom bi tabaraka wa taala li yaxkuma bayna annaasi fi ma xtalafoo fii wa ma xtalafa fiihi illa alladina uutuuhu min baadi ma jaatuhum albayinat baxyan baynahum te nee na ñi ciy juyoo kat mooy ñi ko jàng ba noppi ndax ku jàngul moom mënta juyoo mënta waaye ka ca jàng ba pare nag waaye nag dëppoowut ak bànneexam ndax ndax ne bax yan ak mbewteeku ndëngte ak la dëppoog bànneexam wala la neex nit ñëm dëkkal comme bëgg na ci ñoom alal wala bu bëgg ci ñoom daraja tax mu teg tànkam ca lay dëgg di ca werante fa hadallahu alladina amanu li baxtalafoo fii waaye nee na borom bi gindi ñi nga xam ne moom dëggu nañ ci seen ngëm ca lañ doon juyoo min alxaq bi isni wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ci li muy nett li jële ci boroomam muy xadisul qudsi mu ne suñu boroom dafa wax ne inni xalaqtu ibadi xunafa sama jaam ñëpp dama leen bind ci tawxid wa innahum atathum shayatin fajtalathum an diinihim wa xaramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultaana rawahu muslim suñ boroom ne jaam yëpp da leen bindoon ci tawxid fitratallahi allati fatara annaasa alayha fa aqim wajhaka li diine bi yàlla bind nit muy wéetal yàlla leneen lu ci dugg si rek dañ ko caa def dañ ko caa def mu ne nag seytaane yi ñoo leen dikkal jële leen ci seen diine di leen xaraamalal lu yàlla daganal di leen daganalal lu yàlla xaraamal di leen digal ñuy bokkaaleeg yàlla loo xam ne amuñu ca benn lay borom bi wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa qul ya ahla alkitab taalaw ila kalima yéen ñi fi jiitu woon daan jàng ay téere mu yahoot ak nasaraan kaay leen ci genn kaddu goo xam ne sawaa'in baynana wa baynakum noo ci yam kaddu googu mooy lan allah naabuda illa allah kon daa bëgg nga déglu noo toppe alquran ak sunna ci sa pas-pas sa wàllu aqida alquran pas-pas bi mu jàngale ndax yow jàpp nga ci walla déet allah naabuda illa allah bu ñu jaamu ku dul yàlla wala nushrika bihi shay'a te buñ ko booleeg dara nag wala yattaqisa baaduna baadan arbaban min dunillah bu nu jàppante ci sunu biir ñu ñuy def ay buur bàyyi yàlla te mooy ñoo xam ne li ñu doon wut ci yàlla ñu ko koy jéem wut ci ñoom wala cër bi ñu joxoon yàlla ci muy digleeg tere jox nañ leen ko da képp koo xam ne jox nga ko mu lay digal ndigal loo xam ne mutlax la bokkul ak mu jottali la ndigal waaye ndigalul boppam la la digal moom kooku yaa ngi fay jaamu loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam tontu woon Abdi ibn Hatim ba mu déggee muy jàng ittaxasu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min dunillah ñooñu day dañoo jël seen fóore ya ak seen jaamukat ya def leen ay yàlla bàyyi yàlla te moom ca diine jooja la nekkoon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah defu nu leen ay yàlla nag de mu ne ko moo ndax du ñu leen digal loo xam ne seen bànneex lañ leen ko digale ngeen def mu ne ah moom kay nag lu nu moom nun duñ mu jóge dañuy daal di def rek ndax du leen tere loo xam ne itam seen bànneex a tax ñu tere leen ko mu ne ah kay mu ne ko tilka ibadatukum lahum loola mooy jaamu ga nga leen di jaamu jaamu ga du jaagee di dem di sujjóot ak kii rek déedéet mooy koo xam ne lu mu digle nga def doonte xamoo ndigal la ci yàlla la jóge wala ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam la jóge moom na doy rek ne moom moo ko wax rek lu mu tere itam nga ba doonte tere ba doo am tegtal ci ne yàllaa ko tere wala yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tere koo nangul lool rek yaa ngi koy jaam moo tax mu ne wala yattaqisa ba'duna ba'dan arbaab arbaaban min dunillah bu ñu jàppante ay buur ay yàlla ñu wax dañ leen di jox cëru yàlla ci sunu biir Abdurahman Saadi rahimahullah bi mu firi bi mu ne taalaw ila kalima halumu najtamiu alayha mu ne ñëw leen nu daje ci kaddu gii di laa ilaha illa allah mu ne mooy kaddu gi nga xam ne ittafaqa alayha al anbiya wal mursalun mboolem yonente yi ci kaddu googu daje nañ ci gis nga alquran yaa xawme budullaha ma lakum min ilahin xayru yonente boo dem loola wax yaa xawme budullaha ma lakum min ilahin xayru te loolu mooy mooy laa ilaha illa allah ñaari satra yi ne ci laa ilaha illa allah mooy kufru bi taaxut nafyu ibadati ma siwa llah wa ithbatu al ibadati lillah la ilaha illa loolu lay firi yaa qawmi ibudullah ma lakum min ilahin xayr wa man yakfur bi taaxoot wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wusqa yakfur bi taaxoot mooy laa ilaha yu'min billah mooy illa allah wa man yakfur bi taaxut wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lusqa mooy laa ilaha illa allah rek lay sara mu ne walam yuxaalifha illa almuaaniduuna wa daalluun nee na kàddu googu kenn wuutiwut ak moom lu mooy ñu dëng ñi ñu tëñi ak ñi sànq mu ne laysat muxtassa bi ahadina duna axar nee na kàddu laa ilaha kenn jagoo ko bàyyi sa morom kenn du ne maa moom kenn du ne sama shiar la sama symbole la bal mustaraka baynana wa baynakum ñépp ko bokk mu ne nag mu firee ko ne an laa naabuda illa allah wala nusrika bihi shay'a mooy kalima bi kàddu googu muy woote mooy bu ñu jaamu ku dul yàlla nañ ko wéetal ci jaamu jagleel ko ak cofeel al mahabba jagleel ko ar xawf jagleel ko ar raja ndax ñett yooyu ci la ngëm yàlla di tege ngëm yàlla ñetti keneen yu koy téye mooy al mahabba war raja wal xawf loolu mooy la ci sóorat njàlbéen ak sóoratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin kooku moo tegtale mahabba mooy tegtale bëgg yàlla ndax soo seetantalee lim day defal ci xéewal li nga ci mën a xamaku si néew nga ne alhamdulilahi rabbil alamin li muy tekki mooy bëgg nga yàlla arrahmani rahim bu déggoo ci yow yaakaar nga yàlla borom yërmande juyaatu ji nga xam ne moom séddu ci ku ko nangul ak ku ko nangulul ku mu bind rek da dugg ci biir rahmaanam jooju waaye nag maaliki yow mi diin ah bisa ngi ñëw boo xam ne ñépp a fay teew ka moom bis ba wala muy buuru bis ba teew doo absenté bis ba da nga teew kon war ngaa bàyyi xel war ngaa moo tax ñetti aay yooyu bu ñu dajee rek iman am na waaye rek tawxid amagut waaw iman taw amagut ndax wa maa yuminu aksaruhum billah illa wa hum musrikun bul ne rek am naa iman kon kon man jàll naa déedéet moo tax da ngay jaar ci poste contrôle bi mooy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in foofu la ñu contrôler iman boobu nga andi ba xam wala bal na am mu ngi mel nga dagg billet rek bëgg a daal yéeg ci am na fooy jaar ñu vérifier billet bi ba xam mbaatu dat bu passé bu yàgg billet bu fuuti bu yàgg waaw andi nga iman bi nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi di dagg nga béeb dagg nga béeb béeb àjjana moom dagg nga ko léegi am nga iman waaye nag contrôlé guñ la nag comme nee nga gëm nga yàlla ñu ne ndax yàlla rek ngay jaam iyyaka na'bud nga ne yàlla yow rek rek rek laay jaamu du ma jaamu keneen ah engagement bu réy bis bu set nu wax ko fukki yoon ak juróom-ñaar moo wolof sax léeg-léeg wax lu ba dinaa la wax naa ko fukki yoon ak juróom-ñaar waaw pour wax dina wax naa la ko lu bari juróomi julli yi boole boolee seeni rakka fukki rakk laa ak juróom-ñaar waaw bu fekkee doo naafila waaye da nga julli julli juróom fukki yoon ak juróom-ñaar da ko wax ci bis bi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boo gisee secret bi nekk ci fatiha boo jàngoon baqara ba naasi ci ab rakka jàngoo fatiha rakka boobu du wér boobu du wér waaye boo bi képp sëgg rakka bi mën naa wér bu dee saar wi da koo fàtte boo sujjotee bu baax kon moo lay xamal ne fee da ngaa da ngaa da ngaa wul contrat bi waaw da bëgg di ko renouveler toujours iyyaka na'bud yàlla yow dong dong dong lay jaam waaw del si yow dong dong dong lay dimbali ko muy uluhiyya ak rububiyya iyyaka na'bud nangul nga ko uluhiyya mooy liy jóge ci yow di jëm ci moom du jàdd fenn liy jóge ci moom di ñëw ci yow it doo ko wuti feneen wa iyyaka nasta'in yow rek lay dimbali ko ñaar yooyu nag soo ci admee rek léegi kon nga daal di ñaan nag ñu teg la ci siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim sira nga daal di dem nag waaw léegi nag sa biyee wala bal nag nga dem waaw ihdina siratal mustaqim waaye bala ngaa ñaan ihdina siratal mustaqim day fekk nga am tawxid day fekk nga am tawxid kooku itam ci natt suñu bopp ba xam fuñ ci toll moo tax euh, imam Shaadi moomu bi muy sara aaya bi mu ne naqusuhu bil bil xubbi wal xawfi wa raja wala nusilku bihi nabiyan wala malakan wala waliyan wala sonaman wala wasanan wala xayawaanan wala jamaadan waaw nee na laa nusriku bihi allah wala nusriku bihi bi an ji loolu lay tekki bu ñu ca booleb yonent di ko jox cërub yàlla ak lu màgg-màgg boppam duggul ci cërub yàlla du malaaka moo xam nit la moo xam bant la moo xam mala la moo xam lu man a doon doo ko booleeg suñu borom tabaraka wa taala ci iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ci jaamu gi nga koy jaamu ak wut gi ngay wut ci moom ndimbal ndimbal yi doomu aadama di wut nag boo ko seetee génnul juróom moom la Ibrahima tënk boo gisee borom bi ne ko yow yaay imaamul muwahhidin taskiyee ko suñu borom moo ko taskiyee ne walam yaku minal musrikin walam yaku minal musrikin waaw xam nga loolu loolu deex nag suñu borom ci boobu ne walam yaku minal musrikin shaakiran li anhumi ijtabaahu wa hadaahu ila siraatin mustaqim moo tax borom bi ne jàngal ko nit ni watlu alayhim nabaa ibrahim mbirum ibrahima kat jar naa wax nit ñi is qaala li abihi wa xawmihi ma taabudoon pourtant li nu fekk rek la fekk de xam nga yow da li ma tënk mooy li ma fekk baax samay cosaan samay baay samay maam dama kam nu may def saay bokk waaw sunna bi daal leer na waaye su ma ci nekkee ami problème samay bokk dagg ma parce que Ibrahima loolu la fekk de is qaala li abihi wax maa taabul qaalu naabudu asnaaman fa nazalu laha aakifin nun de ay xërëm la ñuy te duñ fi jógee nag moom la ñu yaakaar suñ lépp ci lañ ko bëgg mu bëgg a yee xel ndax bokkaale foo ko fekk xel mu doxatul ma nga ca waaw xel mu doxatul la xel mu marsul la lampe bee tàkkut moo tax ñu ne la kunna nasma'u aw naqil maa kunna fi ashabi sa'ir law kunna nasma'u aw naqil xel xel am na solo lool moo tax ku ko amatul kenn dëkkalifu la ah mu leen waaw hal yasma'unakum istad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun xam nga bëgg nañu xalaat waaw ndax su ngeen jaaxalee ba woo leen danañ leen wuyu wala ndax mën nañ leen a jariñ wala mën nañ leen a lor xam nga bu dee xam nga alxuraan kenn mënu koo dépassé xam nga bu dee nit la ka ngay bokkaale nit la man nga ne ko xëy na bu jëkkoon boo toogul fi moom boo ko wooyee du mën a dégg waaye fi mu ne même boo newoon ci avion fi ne mën ngaa téléphoné yow ka nga yaakaar te suuf ne ah, pilote bi nee na am na problème borom bi ne walaw sami'u mastajaabu déggal walaw sami'u mastajaabu lakum gis nga walaw doon doonte dégg na ko waaw ah, xam nga dafa ne njëkk ne du ñu dégg waaye ba yàgg mu ne walaw sami'u même bu ko déggoon dégg sa problème bi fa nga ne mastajaabu lakum du la mën a wuyu du mën a def intervention waaw kon koo mën a woo ku dul yàlla nee na même bu déggee woote ba du ca dara moo tax Ibrahima ne leen ndax danañ dégg wala dana jariñ wala dana lor ñu ne ko ñun daal bal wajat naa abaana kasaalika yafalu xam nga boobu xel doxatu bi waaw noonu daal lii lañ ko fekkee suñuy bàyyi doon ko def nu di ko mu ne la afara aytum ma kuntum taabuduuna antum wa abaukum al aqdamuun fa innahum aduwun lii xam nga dañ lay jéem a booleeg noonu sax amul solo waaye mag ñi nag moom mu ne la aqdamuun laa wax de seen bàyyi ya a ñëpp laa kontu waaw antum wa abaukum al xam nga fii moom ñu bari soo waxee comme seen i bari na moom mën nga leen a yéene dañ danaan nun sax amulu solo waaye nag mag ñi moom eh bul kontar mag ñi de waaw mag ñi moom comme dem nañ kër gisatu leen fekkoo leen fi sax ñu la ñu teg leen mbaax goo xam ne ne la seen lépp a baax te moom la ñuy roy mais fekkee lii ngeen nekk yéen ca mag ña nekkoon kon yéen ak mag ñaa yem rek waaw moo tax mu ne antum wa abaukumul aqdamun fa innahum aduwun lii mboolem li ngeen di jaamu yéen ak seen baay yu jëkk yi ak seen maam ya déclaré naa ko guerre samam noona illa rabbal alamin ku dul nag ci bind bindee fi daal di commencé lim nag soxla yi allati xalaqani fa huwa yahdin doomu aadama lim njëkk a soxla mooy hidaaya ko gindi bari na la waaye topp ci nit di jàkk lépp ku la wanu yoon doo nga bëgg waaw mu ne nag man yàlla mi ma bind nag moo may wax jaaral fii hidaaya bu ko ci ku dul yàlla illa rabbal alamin kon fa huwa yahdin bi ci des mooy wërsëg mu ne wallati yut'imuni wa yasqin bi ci des mooy bëgg a ci feebar mu ne wa isaa maritu fa wa yasfin des mooy bëgg a gudd fan mu ne wala si yumitini summa yuhyi bi ci des mooy bëgg a mucc yowmal xiyaam mu ne wala si asmau an yaxfira li xati'ati yowma din koo gis muy bokkaale génnul yi waaw koo gis muy bokkaale génnul yi boo laajoon për yi gaa yi takk boo la laaje yi du génn yi waaw kii day day yokku wërsëg kii loo jaay mu jar koo leb mu lebal la kii boo tukkee ñibbisi doo accidenté xam nga yu muy dina su ma yuxi yéen moom lay jéem ne doo doo accidenté mel moom déeg dund loolu mu takk moo <laughs> bu wala loo toppee waa ji mu ne yomal laa ko yaakaar Ibrahima man de at ma an yaxfira li xati'ati yawma din yàlla laa fa yaakaar de man waaw kon moom tëj ne bunt yëpp nee hidaaya ku ko jubal yàlla lu lekk ak lu mu naan yàlla su feebaree koy faj yàlla lu koy dund ak lu koy rey yàlla lu koy musal yowmal xiyam yàlla borom bi ne ko inni jaa'iluka linnaasi imaaman ku ñëwati na topp ci yow waaw waaw ku ñëwati na topp ci yow yow tëj nga lar képp nga bunt yëpp waaw gis nga yii ku ci mucc rek mucc ci bokkal waaye su fekkee ne yii nag koy feneen fudul yàlla kon da nga yëg ne yow sa digganteeg alquran ak sunna ci wàllu pas-pas jàllut beneen aaya itam boo xam ne dana di sànq ñu bari mooy dañu jàpp ne nit ki daal bu ñu ko yaakaaree cërub diine rek am na xam-xam wala daal yaakaar nañ ci moom ak ragal yàlla ak njuba ngi ci moom ñu daal di jàpp ne moom léegi sañ na ci ñoom lu ko neex waaw jërëtul sax laaj tegtal déedéet moom la maa kaana li bashar an yutiyahu llahu alkitaba walxukma wannubuwa summa yaqula linnaasi kunu ibadan li min dunillah cër bu la yàlla mën a jox xanaa nubuwa moom mu gën a fare kaw bépp waaw kooku moom lu ñu wax nan wàlli yu la xaw ma xutba la xaw suuq lu mu ca mën doon moom eggul ci nubuwa moom nekk am na moom moo tiim kaw lépp te nee na même nubuwa soo ko amee taxul nag yàlla ne la nit ñi nag nañ nekk say jaam yow waaw may naa la nit ñi mais la yàlla daal dafa dem appel d'offre boo xam ne daal am na ñu gagné marché bi marché bi nit bi waaw kenn mënatu am ci yàlla dara te jaaroo si ñoom kon nag mu daal kon nag nit ñi nekk leen samay jaam nee na loolu kenn sañu ko mooy xamal leen seen borom walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun koo xam ne am nga cër yii am nga xam-xam am nga pouvoir bu la yàlla jox muy alxukum am nga cërub yàlla yàlla may la ragal yàlla ko njub jëfandikoo loola xamal nit ñi seen borom nit ñi boole leen koonoo rabbaani yin soo bëggee dañu nekk rabbaani nooy def to allimuuna alkitab da nga leen di jàngal dong mbooloo moom amul wenn yoon woo leen mën a teg ba ñu mën a jub lu dul nga xamal leen boo leen xamalul rek ñu daal lay bëgg a jaawaleeg yàlla cër yi ñu waroon a jox yàlla yow ñu jox la ko wala yaamurakum an tattaqisul malaikata wa nabiyina arbaba gis nga nee na bu leen kenn digal ngeen di jël malaayika yi bu rek kenn ku xam na ne sell dañ ndax borom bi taskee na leen ñoom itam ne laa yasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yu'maruun yonent yi noonu te nee ku la digal nga jaamu malaaka wala nga jaamu yonent digal na la ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun moo tax imam Saadi bi muy leeral aaya bi mu ne lenn ci ahlu kitaab dañ ne woon yonente bi sallallahu alayhi yow da bëgg ñu boole la ak yàlla di la jaamu kon ci diggal gi ñuy nuy digal ne nañu la topp ci sa sunna kon da bëgg ñu boole la ak yàlla nee na ci la aaya bi wàcce suñ boroom xam le ne mbindeef sañut yàlla wàcc ci moomub téere muy wax nit ñi ne jaamu leen ma boole boole leen ba mag yàlla di jaamu nee na loolu jomb la ci ku yàlla yónni koo gis mu di ko wax muy woote ci boppam nee na kon cër bañ yaakaaroon moom ci xam-xam amul xam-xam mbaax gañ yaakaaroon ci moom ci ragal yàlla nekkul ci moom waaye nee na képp koo xam ne am na xam-xam bu leer am na ragal yàlla gu wér du woote ci boppam ñu koy defal benn cër boo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo ko yeyoo maakaana li basa yeyoo kon ci wàllu pas-pas loolu la ci alquran jàngale loolu la ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale mooy ñu wër ci wéetal yàlla bu dee ci wàllu jaamu nag wujubul iqtisam bil kitaabi wa sunna fil ibada ci wàllu jaamu yàlla itam nag dañ cee war a mooy ci alquran ak sunna ñu xool sunu bopp ci fu ñu toll ci jàpp alquran ak sunna ci wàllu ni nuy jaamoo yàlla suñu borom kat bi mu andee ci kaw suuf dafa wax ne fa imma min minni hudan hudan su leen ak njub dikkalee gu bàyyi ko fi man min nii la wax de min nii ci moom rek lay jóge hudan fa man tabee hudaaya falaa xawfun alayhim wala hum yaxsanun ca beneen aaya ba fa man ittabaa hudaaya fala yadillu wala yashqa hudan boobu nag ba mu ne zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan kon njub gam digle woon ñëw na dana woon fa imma yatiyannakum minni hudan su leenu njub dikkalee gu bàyyi koo fi man wàcce alquran ne dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil muttaqin kon njub gëm dige woon ne su leen dikkalee ku ko topp doo am looy ragal doo am lu lay tiis booy del ci man mooy alquranul karim ndax ciy bëgg a génn àdduna ñaari yëf moo nekk ci moom alxawfu wala xasdu xawfu moom ragal yaa ngi koy def ci loo jub te xamagoo nu muy demee maanaam yow yaa ngi jëm yowmal xiyaam te xamagoo loo fa am il nga ragal xusnu moom yaa ngi koy def ci loo amoon nar koo ñàkk yaa ngi bëgg a bàyyi ko àdduna yi sa kër yaa ngi nii sa oto yaa ngi nii sa njaboot gaa ngi nii yépp tey nga tëdd fii nar a tàggoog ñoom mën naa metti ci waaye borom bi nag nee na ku toppoon njub gi nag ñaar yooyu du la dal laa xawfun alayhim wala hum yaxsanun ndax tatanazzalu alayhimul malaayika allaa taxaafu wala taxsanu malaaka yi ñooy wàcc ne la bu ragal yowmal xiyaam gëg a jëm njaboot gii ngay bàyyi itam suñu borom tabaraka wa taala moo di sàmm moo la kon nag bul amu tiis bi absiru bil jannati allati kuntum tuadun suñu borom ne qul inna hudallahi huwa alhuda waxal ne njubug yàlla gii mu wàcce moom dong mooy ak njub wala in ittabaata ahwaahum baada alladi jaaka min al ilm maa laka min allahi min waliyin wala nasir ko fi bàyyi njubug yàlla topp bànneexi nit yi ci yu ñuy fent ak di ko tëral ci lu ñuy tudde ay jaamu wala luy may tuyaaba suñ borom nee ne ku ànd ak ñoom ca loola bu ëllëgee boo dajeg sa borom doo am dimmal borom bi di laajte ne waaw am lahum suraka shara'u lahum min ad-diini maalam ya ya'zan bihi llah waaw mu ndax da ngeen am ñu ngeen booleek yàlla ñu leen di tëralal ci diine ji lu yàlla diglewut ndax jaamu la ca jiitu mooy digle gañ koy digle kon ku la wax ne kaay def nangam jullil nangam wala wérdal nangam wala defal nangam te loola delloowu ko ci alquran delloowu ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi boo ko ko nangulee boole nga ko yàlla jox nga ko cërub yàlla am lahum shuraka shara'u lahum min ad-diini ma lam ya'zan la Allah kon nag nga seet sa bopp yow ba xam li ngay def ci jaamu yàlla ndax lépp lu yam ci li suñu boroom digle la yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ko la lépp lu la waaye andil ak lu mu ko naatal naatal ak lu mu ca wax wax ne moo ca nekk ci tuyaaba yow loola doo ko gëm doo ko topp ndax foo ko teg mooy suñu boroom tabaraka wa taala diglewu ko te mu mbekk mooy kii fay bu fekkee toll nga foofu ci sa jaamu yàlla kon jàpp nga ci alquran ak sunna ci sa jaamu bi nu yàlla moo tax imam saadi ci aaya bi saraxoo lahu min addiini ma lam yatin bi illah mu ne min ashirki wal bidaci wa taxrimi ma axal allah wa ma xarama allah wa nee na yoonal giñ lay yoonalal lu yàlla diglewul mooy liñ lay andil ciy bokkaale liñ lay andil ciy bidaa bu dee yi fent ci bidaa rawatina ci sunu barab yi nu dëkke noonu kenn xamul nu mu toll loolu ku jëfandikuwul ci alxuraan ak sunna lool bootul rek da nga ca tabbi mu ne maa anna diina laa yakunu illa ma saraahu llahu taala àndan ne diine mënta nekk lu mooy lu yàlla yoonal li yadiina bihi al ibad wa yataqarrabu bihi ilayhi ngir ñu jaamoo ko ko sàkkoo ko koo jege fal aslu al xajr ala kulli ahadin an yasraa shay'an maa jaa an illahi wa an rasuli nee na lii cosaan mooy dañoo tere kenn di tëral loo xam ne jógewul ci yàlla jógewul ci yonente bi sallallahu alayhi nga di ko tëral def ko aw doxin def ko ak jaamu ci diine moo taxoon yonente bi woon ku fi ba ca kanam fa sa yara ixtilaafan kasira dana gis juyoo gu bari waaye nag boobaa la la cay musal nag mooy ngooyal ci sama sunna rek ak sunna ñu jub ñi nga xam ne ñoom ma fi wut ñetteel bi mooy wujubul iqtisaam bil kitaabi wa sunna fil axlaaqi wal muamalat nu ñu war a ngooyee itam nag ci alquran ak sunna sunuy jikko ak sunu jëflante kon sunu pas-pas nañ fexe ba mu dëppoog alquran ak sunna te mooy tawxid bu mat sëkk doo ci bokkaale ak dara suñu borom ne loolu roy leen ko ci ibrahim wàllu jaamu yàlla moom itam nañ ci tënku ci alquran ak sunna mooy du ñu ci jëfe lu dul lu yàlla yoonal yàlla yoonal digle ko ne defee leen ko nii yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale pratique ba fa mu ko na mu ko jàngale rek foofa la ñuy yem duñ ci jéem a dugal yenn xalaat moment bu ñu toll bu nekk ñu xam fii lu fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale bu dee am néew la ñuy rob ak lu ñu mën def ñu xam fii lu fi yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale te bañ a dem ak ay sentiment bañ a dem ak ay roy ak i toppandoo yoo xam ne ñeneen a ko indi kon war gu ñu war a tënku ci alxuraan ak sunna ci wàllu jikko ak wàllu jëflante dañ ciy tudd rek juróom-ñaari jikko ndax côté boobu nag mooy bi ëpp loo xam ne doomu aadama na ko jëflanteeg boroom ma bii diine nit ki li ci nit ñi mu ko siqal am mooy côté jikkoom sa pas-pas moom sa mbirum boppa say jaamu yàlla sa mbirum boppa amma say jikko nag kooku moom mooy li nga xam ne nit ñi dañ ciy jariñu wala ñu loru ci bu say jikko rafetee ñi nga dëkkal ñëpp di ci jariñu moom la boroom ba tuddee meññat ma tuuti ukulaha kulla xiinin bi ismi rabbiha parce que dafa misaal jullit bi ci garab garab ay reedam moo ko moom ay xobam itam moo ko moom mais meññatam nag ñëpp a ci bokk ah meññatam ci bokk bari waa garab gu ñuy lekk tey meññatam fii te mësuñu ko man dëgg mësumaa gis garabu pom waaw te ñi koy lekk fii moo tax mu ne kulla xiin doomu adama bi noonu la mel pas-pasam moom xëy na ku dund ak moom da nga ca mën a jariñu ay jaamu yàllaam itam ku ko fekkee mooy mooy xobi garab gi garab gi ku fa dem fa mu ne mën ngaa toog ca ker ga jariñu ca xob yu naat ya waaye xob yooyu sax day mujj nag garab nga wow dem waaye meññat ma nag mooy lii continuer moom parce que doom bu ca jeex ñu ji ko mu continuer waat di meññat di wéy moo tax mu ne tuuti ukulaha kulla xiin kulla xiin fi mu ne saxaaba yi nga xam ne nun gisuñu leen waaye teewul ba léegi noo ngi jariñu ci seen i dund seen i jikko yu rafet yonente bi sallallahu alayhi buñ la nettalee siiraam nga roy ci meññetam moomu nga xam ne moo doon jikkoom di ko jariñoo ba léegi amma na mu doon jullee moom yow mënatoo ca teg sa bët ña ca doon teg seen bët amoon tawfiixu teg ca seen bët di ko ki ñoo ñoo am tawfiix booba teewul nag melo melokaaroo moom mi ngi fi melokaaroo moom mi ngi fi waaye nag ña doon teg seen bët nag loolu boobu beneen daraja la boo xam ne moom ku ko fekkewul mënatoo ko am kon jikko yooyu dañ ci tànn juróom ñaar yoo xam ne mu ëmb jikko yi ci des yépp ba ca jiitu mooy alxayaa muy kersa kersa boroom xam-xam yi dañuy wax ne xuluqun yabasu ala tarkil xabiix du niñ ko jàppe ñun rek naan dafa bari kersa du wax ci mbooloo du siggi xool nit déedéet loolu alxayaa ut tabii lañ koy tuddee kooku soriwut ak rëy ñaare léeg-léeg ndax léeg-léeg li koy faral di waral mooy bañ benn manque feeñ ci yow moo tax léeg du nangoo wax du nangoo bokk ci dara ndax jàpp ne lu rek mën na caa juum te kon fa ko nit ñi tegoon day wàññi kooku la ñu di alxayaa ut tabi'i kooku baaxut waaw waaw woykat ba wax na ko Suhayr ibn Abi Salma wa kaa in tara min saamitin laka mu'jibin siyaadatuhu aw naqsuhu fi takallumi nee na bari waa nga gis ku ne këj toog ñu di koy daal i kii boro boro borom xam-xam la de kii day boo demee nangam na boo demee yi bari lool waaye nee na boo waxee rek benn mu dolli ko wala mu wàññi moo tax mu ne lisaanul fata nisfun wa nisfun fu aaduhu falam yabqa illa suratul lahmi wa dami waaw léegi nag alxayaa u boobu nag moom l'islam bëgg ko bi mu bëgg mooy alxayaa bi nga xam ne nii ñu ko taarifee jikko la boo xam ne day dox sa digganteeg def lu ñaaw wa yamna'u min at-taqsiri fi xaqitil xaq dalay tere nga gàttañ lu ci aqi boroom aq man a koo ameel aq da nga am kersa ci manqué aq jooju sa kem kattan man a aq joo séq ak nit wala joo séq sa boroom sax moo jiitu ak ji nga séq sa borom te mooy wéetal ko ci jaamu jooju ngay jëkk a matal am nga kersa ci manquil ak jooju sa borom defal la lim la war a defal ci xéewal lépp sant la rek nga jaamu ko wéetal ko ci jaamu gi bu ko boole kenn yow nga di ko boole keneen loolu war nga am kersa ci loolu kersa ba tey mooy sori lépp loo xam ne ay subuhaat la ay lënt la lu la léerul nga sori loolu mooy yëkkatiku itam sori lépp loo xam ne lu lay suufeel la lépp loo xam ne lu lay manquil la lu lay suufeel la ci nattukaayu sharia waxuñu rek lu lay suufeel ci nattukaayu nit ñi waaye loo xam ne ci sharia ku ko def suufe ngay moytandi ko loola moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne alxayaau xayrun kullu nee na kersa lépp yiw la del wax ne inna mimma adraka annaas min kalaami nubuwati l ula isa lam tastaxi fasna ma sita mu ne bokk na ci li nit ñi defe te jëlee ko ca waxi yonent yu jëkk ya mooy ku amatul kersal lu ne mën nga ko def waaw nit ki bu amatul kersal digganteem ak boroomam del wax ne wal xayaau sobatun min al iman kersa day ab xaaj la ci ngëm yàlla bokk na ci kersa itam nag sori lekk alali nit ñi ci neen ak di yàq seeni der benn waaye dafa bind Abdullah ibn Omar ne ko aniktub ilayya bil ilmi kullihi dama bëgg a bindal ma xam-xam lépp waaw fa kataba ilayhi ibnu Omar ne ko inna al ilma kasir ne ko ah xam-xam dafa bari waaye in istataata an talqa allaha xafifa alzahri min dimai nnaas xamiisa albatni min amwalihim kaafan lisaanaka an aradihim laasiman li amri jamaatihim fafal wasalaam loolu la ko Abdullah ibn Omar bind ki ne ko woon damaa bëgg nga bindal ma lépp xam-xam mu ne ko xam-xam dafa bari waaye soo mënee booy dajeek yàlla sa gannaaw wayaf ci yi nit ñi gàdduwoo deret jënd jootóoru nar nar koo dajeeg sa borom sa biir woos mën a set wecc ci alali nit ñi joo xam ne neen la saw làmmiñ nga fekk ko ci derub nit ñi doo yàq derub kenn nga takkoog mbooloom jullit mi nga xam ne ñoo tënku ci sunna nga ànd ci mbooloo moom mu ne soo mënee loolu defal wasalaam xaati moom lu asam mas nañ koo laaj ne ko waaw ala ma banayta am raka fi tawakkul am ko ko laaj ne ko waaw yow sag wakiirlu ci yàlla foo ko teg mu ne ci ñeenti mbir laa ko teg alimtu anna risqi la yakuluhu xayri fatma annat bihi nafsi mu ne damaa xam ne sama wërsëg kenn mënu koo lekk ku dul man sama xel dal ci waaw li ma yàlla wërsëgal kenn mënu koo lekk ku dul man moo tax sama xel dal ci wa alimtu anna amali laa yaamaluhu xayri fa ana masxulun bihi ma xam ne li ma war a jëf kenn mënuma koo jëfal nee na ma soxla woon li ma war ci di ko jëf wa alimtu anna al mawta yati baxtatan fa ana ubaadiruhu nee ma xam ne dee daf may bett ma di ko njëkkentu jiitu ko ci jàkk ba pare man comme daf may bett man su ma fekkee jekk kon mbetteel ga dana wàññi wa alimtu anni laa axlu min aynillah fa ana mustahid minhu nee ma xam ne amul benn yoon bu may absenté ci gisub suñu borom tabaraka wa taala ma kersaw sama diggante moom moo tax borom bi tabaraka wa taala li mu gën a bañ mooy koo xam ne day nëbbu di ko moy maanaa kon kooku day mel ne gisub sañ suñu borom tabaraka wa taala moo gën a ñàkk solo ci moom ci yeneen gis yi ci def yëpp lu muy def bu nit di ñëw mu ne dencal nit a ngi ñëw wala noppel nit ñi koy dégg te borom bi tabaraka wa taala moom mi continuer di ko gis moom bu jàppee ne beneen bët gisati ko mu continuer def la mu doon def moo tax ñu ne fala yakuni llahu ahwana nazirina ilayk yàlla bu mu doon ki nga gën a xeeb ci ñi lay xool parce que ñi lay xool bari na koo ci seen ne dencal ba kooku dem dencal ba kooku dem ba ñëpp dem nag nga ne defal waaw waaw ki des di la xool nag alam ya'lam bi anna allaha yara inna allaha sami'un basir kon kooku li muy tekki mooy amul kersa digganteem ak borom beneen jikko ñaareel bi nga xam ne itam nit ki war na cee natt boppam gis nga kon bu njëkk bii muy wàllu kersa sa digganteeg sa borom ci sori lépp loo xam ne ak mooy la wala ñàkk a nekk ci loo xam ne lu mu la diggan la te nga mën caa nekk loolu ci la doomu adama bi war a am kers ñaareel bi mooy dëddu li ñu tudde ak suxdu te mooy bañ a wékk sa mbir yépp ci àdduna àdduna nga jàppe ko sabab lookaay damay faral di wax ne ñaare ñaari baat nit ñi dañ leen dul xàmmee àdduna bi li nu fi tax ne ak li nu fiy tax a mën a ne ñaari ñaari ñaari question yoo fi nekk li nu fi tax a ne mooy jaamu yàlla waaye li nu fiy tax a mane ne nag mooy wut fi wërsëg mooy liggéey beeg kër kër jéeg wut wërsëg am lu ñu lekk waaw loolu mooy tax nu man fee ne waaye nag taxunu fee ne léegi nag sa temps bépp nga jeexal ko ci li la fi tax a mën a ne ba fàttee def li la fi taxoon a ne mel na ki dem ca tool yi rek luy tax mu mën a yàgg ci tool yi mooy mu am fi ndox mu muy naan bu fi bëggee yendu ju andil ko añ mu am fi garab goo xam ne bu naaj wi tàngi ba digg bëccëg mu mën caa yendu bu goonee mu kontaan yooyu mooy tax mu mën a yàgg ci tool mais rek yooyu ko tool bi xanaa kenn tool rek ne maa ngi dem tool pour toogi wala maa ngi dem tool pour ñu andil ma fa añ wala maa ngi dem tool pour naani ndox déedéet tool ba la la fa tax ñëw mooy liggéey ba mbay ma waaw waaye soo nekkee nag di di defar ndox ma di ko seral di raddu garab ga di upp añ ba ba far wàcc jot mooy nag ñi fi nekk yittewoo àdduna rek damay wut wërsëg damaa bëgg am kër damaa bëgg am nangam jë jëmaguma ci jaamu yàlla te borom tool bi sax moo la ndax moom xam ne heure wàccam li gën mii di lay wàcc moom mais yow fii nag yow da amul aaru wàcc xamoo sa heure wàcc jamono bu ne man ngaa wàcc am na ñuy wàcc sept heures sax ñuy wàcc huit heures ñuy wàcc neuf heures ñuy wàcc dix heures jamono bu ne wàccekat baa ngi wàcce rek wali kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastaxiruna saatan wala yastaqdimun kenn ku ne saw fan fi mu yem mooy sa heure wàcc te xamoo kañ la kooku nag kon boo sàgganee li la fi tax a ñëw di yittewoo li la fi tax a mën a ne ma ne bureau bi daal yow liggéey bi nga war a def ngay yittewoo moo bële bureau bi daal ci nga ne ci ngay jël temps dama noppeegul ci moo bële biro bi wut fourniture yi may war a liggéeyee ci loolu nga ne ba fonction bi la fi andi tax ñu affecté la bi dafa ci dara moom nekk da ngay defar sa bureau waaw jékki-jékki ñu la affecté nañ la ah te fii moom alaxira la ñuy affecté de affectation bi alaxira da ngay jékki-jékki rek ñu affecté la alaxira waaw nga dem amul waaj kon nag sa bureau ba nga moobale woon nag fauteuil ya nga fa tegoon nag yépp fa nga koy ba lañ lay fay mooy la nga fa jot a liggéey moo tax borom bi ne yaa ayuha nnaas inna wa'dallahi xaq fala taxurrannakum alxayatu dunya wala yaxurrannakum billahi alxarur doomu aadama yi xam leen ne yàlla lim dige day ñëw de adduna bi bu mu neex ba ngeen jàpp ne yàlla daa fomm li mu waxoon worokat bi di seytaane nee na bu mu leen nax fii ci àdduna imam ibnu tayima rahimahullah ne assuhdu huwa tarku raghba fi ma la yanfau fi daaril axira nee na dëddu adduna mooy nga bàyyee xemmeem lu dul jariñ alaxira lu dul jariñ alaxira rek nga bañ ca am it même yi lay jariñ yi ngay jariñoo fii ci àdduna dalaa war a mën a jariñ alaxira danga ko war a mën a jariñoo wut ci tuyaaba imam ibnul xayim rahimahullah laa tatimmu ragbatu fi l illa bi zuhdi fi dunia nee na sa xemmemtéef ci àllaaxira du mën a mat lu dul nga dëddu adduna dëddu adduna tekkiwul nga bàyyi ko bañ wut dara déedéet waaye li ngay wut lépp danga koy jàppe ay sabab yoo xam ne leneen nga koy doyee waaye bul wut adduna ngir adduna bul am kër ngir kër rek amal kër ngir ne ma man faa yar sama njaboot li ma yàlla digal ci njaboot gi ma am barab bu ma leen mën a dugal ba mën leen faa yar alal ji may am muy alal ju lew joo xam ne dana ma mën a aar ba du ma tàbbi ci lu xaram ma ne ko looy wut lu nekk moyen la waaye bu la damay am alal rek ngir bari alal dama bëgg alal rek déedéet alal bi jumtukaay la boo xam ne dafa am loo koy doye kër gi dafa am loo koy doye oto bi dafa am loo koy doye mu dimbali la ci fépp fu ñu wootee ngir yàlla nga gaaw faa mën a egg waaye bul ne may oto bi foofu fu ma romb ñu xam ne am naa oto déedéet oto bi ma gaaw a mën a dem bu dee ca julli ajjuma ja ma gaaw faa yegg bu dee ca waxtaanu diine ma gaaw faa dem bu dee mbokk mu feebar ma gaaw koo mën a seeti def santaane yàlla yi pour mu mën a gaaw loolu laay doyee jumtukaay bi ma yor waaye doyewuma ko pour puukarewu wala ngir moom rek laa soxla loolu mooy ki nga xam ne jàppee na ko ay ay asbaab ay sabab moom li borom bi ne mboolem wabtaxi fii ma ataaka allahu daaral axira loo am rek wut ci alaxira bul ci fàtte nag li nga ciy jariñoo fii ci àdduna wala tansa nasibaka min ad-dunya xam nga wala tansa lu ñu la koy wax bul fàtte nangam bu doon tukki tey bagage bu mag bi moom kenn du la wax bul ko fàtte lañ lay fàtte mooy sa sa montar bi wala sa bi yu woyeef nga xam ne mën nga ko fee fàtte moom lañ la ah wattu fee fàtte nangam ji de waaye gaal nga xam ne moom ci la bagage kooku moom doo ko fàtte kon bu ñu la wala tansa nasibaka min ad-dunya kon moo lay xamal ne moom du l'essentiel bi la tax a jóg waaye li la tax a jóg mooy li tax ñu ëddi la fi mooy jaamu suñu borom tabaraka wa taala moom imaam Ibnul Qayyim nag mu ne doomu aadama du mën a dëddu àdduna lu may mu xool adduna ci ñaari xoolin bu njëkk bi mu xool ni mu gaaw a demee xool ni muy manqué xool ni mu xeeboo loo fi woo ba am ko lu nekk day daal di commencé di manqué bu dee lu bees la woon commencé kër gu bees la commencé na kër gi di di xob bi kooka màggat ñu ay kër diw gi bi daaw jéeg bi mu koy sanc ni mu rafete te léegi ni mu mel léegi gis nga ko otoom bi noonu te noonu muy mel sa yaram bi itam noonu lay wàññi moom itam waaw la nga mënoon nga di ko gën itale kon moom mi ngi lay wan gannaaw mu ne nga xool alaaxee nag moom ci ni mu jublu see moom ni mu ni muy ñëwee ak ni muy deseeg ni muy saxe bu ëllëgee adduna moom wane na gannaaw mi ngi dem alaaxira mi ngi ñëw waaw gan guy tàggoo di takki bagaasam di bëgg dem ak gan guy bëgg ñëw ñaar ñooñu koo ci gën a war a wutal teraanga ak toppatoo gan gi bëgg a ñëw te ñëwagut mi ngi waaj di ñëw bis bu set ak ñëwam gën a jege kii nag bis bu set moom ak demam di gën a sori mu lay gën di sori rek moo tax alxasan ne law raayta al ajala wa mururahu la nasiita al amala wa xururahu mu ne boo gisoon sa fan bi ni muy deme ni muy wàññi ko kon danga nga fàtte mébét yi ngay mébét bu ma amee nangam bu déwénee ma def nangam bu déwén jéegee ma def nangam mel na yow programme yu dee moom dafa bokkul ci sa programme loolu ak waru la kenn ci suuxaat yi muy dëddukat yi dañ ko am ko nekkoon dénk ma mu ne ko da hamma dunia li ahliha kama tarako hamma al li ahliha mu ne ko bàyyil yittey àdduna ak ñi yittewoo àdduna nga xam ne àdduna dong nga leen tax a jóg bàyyee leen ko nañ la bàyyee yow yittey alaxira ñi àllaaxira yitteel ñi bëgg àdduna dañ leen a bàyyee yitte àllaaxira bu ñu nee nodd ca jàkka ja boolewuñ ci sax seen bopp dañoo ko ne bu ñuy nodd jàppuñ ne moom nodd gi ñoom bokkuñu ci waaw seen nekku ci bu ñu nee koor gi seen yoon ci bokkuñu ci bàyyee parce que ñiy ragal yàlla ka wuti àllaaxira ak wut diine lañ bàyyee nee na noo ñu la bàyyee nag loolu yow it leen ko seen pomook seen caaxaay rek àdduna boobu ñu nekk jikko bi nga xam ne itam jullit na cee natt boppam mooy ak maandu nag maandu al adlu huwa mizanullahi taala fi l ard mooy balance bi suñu borom tabaraka wa taala def ci kaw suuf di ko peesee nit ñi ci lay jëlale ki néew doole ak xam ci ki am doole borom bi ne tilka daarul axira naj'aluha lilladina laa yuriduna uluwan fi l ardi wala war na ci képp koo xam ne méngoo ne dara ci mbirum jullit ñi mu maanu seen diggante képp koo xam ne yor nga dara ci mbirum jul tàmbalee ko ca ka jiite muy chef d'état ba yaa xamul ministre nga yaa xamul député nga yaa xam loo mën a doon nga maandu ci loolu nga xam ne danga koo yor te bindeef yépp ba moo tax dikk na ci juróom-ñaar ñi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yàlla da leen di keral bu yowmal xiyaamee ci keram imaamun aadil njiit lu maandu imaam nag ci lislaam moom mooy cër bi gën a kawe ci lépp la waa yor jiite ko rek imaam nga ci lépp loo xam ne yaay chef ba yaay directeur bi wala yaay chef entreprise bi wala yaay ministre bi wala yaay président bi loola imaam nga ca boo ca maandoo da dugg ci biir ñooñu suñu borom tabaraka wa taala di keral ëllëg umu salama radiallahu anha mi nga wax ne yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ci njëlbéenug lislaam bi ñu demee ba makka xat ci jullit ñi ñu di leen sonal lool daf la leen ne xabasa day muy tey Éthiopie ab buura nga fa boo xam ne kenn du tooñ kenn fa moom maanaam du seetaan kenn ñuy tooñ kenn fa moom dem leen fa ba yàlla andi ak jàpp ndal andi ab ubbi mu ne ba ñu fa demee am nañ fa dal bu ma sëkk am fa dëkkandoo boo xam ne bu ànd ak jàmm la amuñu dara lu ñuy tiit ci suñ diine amuñu dara lu ñuy tiit ci ku ñu tooñ gis nga kon même kooka booba nekkagul ab jullit waaye maandu gu mu maandu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yabal leen fa Omar ibn Abdul Aziz bi mu nekkee xalifa kenn ci gouverneur bi da ko mës a bind ne ko daal dëkk bi dafa ràpp dama bëggoon daal nga yónnee ma xaalis ñu defaraat dëkk bi daal ba mu gën a taaruwaat mu ne ko waaw dégg naa li nga wax waaye soo jotee lettre bi ma lay tontu fa xassin madinataka bil adl dëkk bi na nga ko sange na nga ko protéger maandu waaye na nga setal mbedd yi ci tooñ nee na soo seetalee mbedd dëkk bi ci tooñ ba kenn kuy tooñ nekku fi rek nee na boobu dëkk bi beesaat na bu boobaa dëkk bi fekkee ak maanu teef yi dox ak tooñ jële nga fi kenn tooñul kenn doonte tabax ya ràpp na itam dëkk ba daa mel ne daf ba ñëpp ci jàmm la ne ndax ab dëkk dundal ko du dundal rek mbedd yaag tëli yaag làmp yaag yooyu waaye nit ñi ci seen bopp am jàmm am seeni aq la ñu yeyoo te muy jaar ci yow nga jox leen ko loolu mooy mooy gouvernance bu baax li ñu tudde bonne gouvernance mooy loolu maanaam boo gisee société jaahili yooyu li mu wuteeg lislaam ñoom matériel bi la ñu jiital ci nit ñi lislaam nag nit ñi la teg ci kaw matériel bi saqara lakum ma fi samawati ma fi l ard ñoom nag nit ñi la ñuy sacrifier pour defar dëkk bi dëkk boo bu ñu wax naat dañ naan la xoolal tëli yeeg xoolal lamp yeeg xool waaw xoolal faqir yeeg ñi yalwaan ah poto lamp bi taxaw di tàkk faqir ba ca wéeru di yalwaan moo poto lamp bi ku gën fexewoon woon ba ki yalwaan du di yalwaan te lamp bi lamp bi tàkkee ñu jox ko ki yelwaan moo moo gën waaw waaw fexe ba kenn yelwaan waaye làmp yëpp a ngi tàkk waaye poto ba leen di tëgg ca wéeru di yelwaan ñu ne loolu développement la ah <laughs> <laughs> lamp yee développé waaye nit ñi développé wuñ ñëpp ah développement du ay mbedd ak ay tëleeg ay kii moo tax foofu lañu ñu borom bi def ne moom li ci adduna bi dañ ko def pour yéen ñoom nag dañuy tàggat nit ñi pour defar adduna bi waaw teg nit ñi ay impôts yu metti loo koy doyee dama koy defaree tëlee ki ak yooyu te mën na caa dem ba mu dut am dépense moom waaw lamp yaa ngay tàkk tëli yaa nga fa waaye amatuñu lu ñu lekk ñu ne foofa deew la feneen naat déedéet lu lislaam nit ñi soxla si nit ñi la ñuy jiital ci faj ko donte amuñu tëli amuñu làmp amuñu waaye kenn xiifut kenn mërut ñëpp a ki jàng ñëpp a ki faju noonu la lislaam di gouverner lool la mooy deew lislaam moom noonu la gitee doo rabba maanaam nit ñi lay yittewoo waaye du yittewoo matériel loolu moo wute moo tax borom bi afa hukumal jaahiliyati yabqun waaye yéen atteb ceddo ngeen di wut jaahiliya wa man ahsanu minallahi man ana kan moo gën a rafet yàlla am atte kon loolu dañ ciy bàyyi xel bu baax euh, Fatima soxna Omar ibn Abdul Aziz la woon nee dafa mas a dugg ci néeg bi fekk Omar ibn Abdul Aziz dël mu def nii loxo yi ci bopp bi di jooy nee mu ne ko waaw lan moo xew mbaaru dafa am xibaar bu garaaw bu la jóge ci raison yi ñëw mu ne ko déedéet li xew kay mooy man dañ maa jox cër bii ma jiite xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma xalaat ci faqiir bu xiif ak ko feebar ku amul ku ko taxaw ak ku ñu tooj koo xam ne ña ngi koy not ak prisonnier boo xam ne ña ko tëj tëjewuñ ko dëgg ak mag mu màggat moo xam ne amatul ku ko yor ku yorug njaboot te ñàkk ak ñu mel na ñoom nekk ci réew yi nga xam ne man maa ko jiite yilif ko ma jàpp ne suñu borom tabaraka wa taala dana ma laaj ñooñu bu ëllëgee te bu boobaa ñoo seen avocat mooy yonente bi sallallahu alayhi wa mu ne ko loolu lay jooy mu ne fa xasiitu allah yasbuta li xujja inda xusumatihi ma ragal ne bu keroogee sama lay du mën a jub mu ne fa rahimtu nafsi fa bakiitu loolu tax ma yërëm saa bopp jooy xoolal xoolal njiit yu mel noonu ñooñu ñoo doon ay njiiti jullit sayxul islam ibnu taymiya rahimahullah ne nit ñi werante wuñ ci ne aaxibatu zulmi waxiima wa aaxibatu adli karima nee na kenn werante ne mu mujjug tooñ fokk day metti waaye mujjug maandu fokk teraanga lay doon moo tax ñuy wax ne yansurullahu ad la al aadila wa in kaanat kaafira yàlla dana dimbali réew moo xam ne maandu na ka ko yoon lay doxal tooñu kenn doonte réewum yëfar la waaye tooñ tooñuñu waaye wala yansuru ad dawlata zalima wa in kaanat mu'mina du dimbali nag réew moo xam ne dañ fay tooñ doonte dañoo wax ne ay jullit lañ suñu borom tabaraka wa taala dafa bëgg maandu fii ci àdduna moom dëgg lañ ña nekk yéefar moom mënuñu am alaxira dara waaye fii ci àdduna nag bañ maandoo mën nañ fee am jàmm moom ñi gëm yàlla itam yàlla dig na leen alaxira xéewal waaye bu ñu maanduwul fii ci àdduna moom danañ ci am fitna ji méttee méttee méttee méttee kon àdduna moom li koy doxal mooy maandu te inna allaha ya'muru bil adl mooy logique mooy loi bii doxal àdduna bool na rek ay jullit lañ dañuy jaamu yàlla kon dañuy am xéewal ñii ay yéefar lañ waruñu am xéewal déedéet ki respecté loi yi yàlla teg ci àdduna ki la ko gën a respecté kooku moo lay gën a jot li nga xam ne moom la fi yàlla digg fii ci àdduna bokkul nag la am digg àllaaxira fenn fu ci nekk dafa am ay loi yu mu ko tëralal yoo xam ne mooy tax nga jot lam fa digge fii ci àdduna nag loi bi mooy maandu rek kenn ku ne i'ta'u kulli si haqqin haqqa kenn ku nekk jox ko akam bañ a tooñ kenn ñeenteelu jikko bi nga xam ne itam jullit war na cee góorgóorlu baax mooy dëggu nag borom bi nee na falaw sadaqullaha la kaana xayran la bu ñu dëggu woon seen digganteeg yàlla day kon mu gën ci yéen yowmal xiyaam suñu borom tabaraka wa taala bu dajalee jaam ñépp lam fay tudd ci jëf mooy dëggu yowma yanfau saadiqina sidquhum loolu rek lay wax de tey jii ñu dëggu woon seen dëggu gi dana leen jël yonente bi alayhi salatu wasalaam ne as sidqu yahdi ila al bir wa inna yahdi ila al nee na dëggu dalay teg jëmale ci mbaax ak mbaax nag daf lay jëme aljanna beneen jikko bi nga xam ne itam l'islam daf koy jigle ñu war a xool fuñ ci toll ci alquran ak sunna mooy al amaana al amaana mooy ak wóor ak doy ak wóor borom bi ba muy lim melokaani ñi gëm yàlla wallazina hum li amaanatihim wa ahdihim raun dafa wax ne ñi nga xam ne seen kóllëre al amaana mooy lépp lu ñu la dénk liggéey bi ñu lay liggéeyloo njàngale mi ngay jàngale bureau bi nga yor wala même soxna si nga nekkal amaana moo dox seen diggante amaana boobu nag day lu diis moo tax borom bi ne inna aradna al amaanata ala samawati wal an yaxmilnaha wa minha wa xamalaha al insan innahu kana zaluman jahula dellu wax ne yaa ayyuha alladina amanu la taxunu allaha wa rasul bu leen wor yàllaa ko yonentam wa taxoonu amaanaatikum te mooy nga wor kóllëre guñ la dénk moo xam ab secret la wala liggéey la wala alal la nga ñàkk koo sàmmonteel ca nañ la ko dénk sa diggante sa borom abi hurayra radiallahu anhu mi ngi jëlee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam bi muy tudd mandarga yi gën a fes ci naaféq yem ca tudd mooy su waxee wax lu dul dëgg su diggee dana wor suñ ko wóoloo dana wor ca lañ ko wóoloo wa isa tumina xaana bokk na ci matal amaana nag mooy looy dugg lu nekk nga boole ca ñaar mooy alxibra muy doon loo xam ne wóor na ne lim ci compétence mën nga ko waaye boole ca itam nag yëg muraqabatullah yëg ne yàlla mi ngi lay fuglu ci li ngay def ñaari compétence yooyu la ñuy former cadre bu ñuy liggéeyloo boo gisee suñu cadre yi fii suñu bonne gouvernance yi ñuy wax yépp du mën a am formation bee manqué formation bee manqué ñaari côté la Yuusufa ba muy wax ne jox leen ma trésor public bi daf naa man am naa ñaari qualité yi ij'al ni ala xasaa'ini al ard ndax inni xafiisun alim gis xafiis sax la jiital ku mën a sàmm laa ku am kóllëre laa ku koy sàmm sama diggante sama borom la alimun ku ko xam laa itam nag ba kenn mënu ma cee ndax waaw maanaam liggéey booy liggéey nga am compétence ba ma man ko xam ko ndax soo ko mënul it loo bëgg a wóor wóor wóor nit dana jaar ci sa ñàkk xam gi nax la ñu ne moo lekk xaalis ba fekk moom lekku ko keneen na ko lekk kon compétence bi baax na waaye soo amee compétence bii dem na xëy na nag ay ENAM ak ay école de formation yi danañ former moom compétence mais nag al amaana lañ dul former amaana lañ amul formation amaana su fekkoonte ne école yooyu dañ fay yebal jàngalekat yi duaat yi suñ leen formé ca administration ba nañ koy war a yore ba pare dugg nag jël kuurub alquran ak sunna fexe ba ñu def ci seen biir xol yi ak yëg yàlla muraqabatullah boobaa inspect inspecteur nangam yu bari yi duñu ko soxlaati boobaa inspecteur yi ñu bari la duutuñu ko soxla bu boobaa inspecteur bi yàlla lay doon nit ki yàlla rek lay bàyyi xel boobaa inspec inspection générale d'état defe naa am na ñi nga xam ne ñooy inspect ñooy topp bureau bureau mais moom moom ku koy inspecté waat moom itam ah président ba ko fa teg ku koy inspecté waat moom itam koo ca topp rek daalaat laaj ku koy inspecté kooku nag kon bu boobaa du mën a sotti ndax doomu aadama dafa mënta jubbanti moroom ma benn appareil buy réparer moromum appareil amut lenn lu ne la koy defar lu ko génn lay doon waaye doomu aadama bi moo bëgg a jubbanti moroomam doomu aadama moo koy defar mënul nekk mënul nekk mënul nekk borom bi tabaraka wa taala bi bind rek ala yaalamu man xalaq man xalaq rek wa huwa latiful xabir kooku rek moo xam ala yaalamu man xalaq mais keneen ki nga xam dañ ko bind comme yow ñu ne nag moo lay jubbanti moo lay teg ci yoon bu sotti kon amaana ñaar yooyu lay boole bokk na ci matuk amaana itam nag muy ak wóor di nëbbu mbóot mu ñu war a nëbb rawatina ya nga xam ne buñ ko siiwalee aw ay lay indi ak nag di bañ a jox itam secret koo xam ne yeyoo mënu koo denc waaw soo amee secret buñ la jox boo xam ne su feeñee lu bari mën na ca yàqoo bul ne yow du ma ko feeñal waaye nag nga wax ni ne ko yow rek laa ko wax nag da ngay sama xarit yow rek laa ko wax moom itam am na xaritam boo xam ne dana ne ko yow rek laa ko wax waaw noona lay lawee di deme rek bokk na ci yi nga xam ne itam yu ñu war a sàmmante la nag mooy as sabru muñ muñ jikkoy jullit la boo xam ne suñu borom da koo recommandé yaa ayyuha allazina amanu isbiru wa saabiru wa raabitu wattaqullaha laallakum tuflihun digal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul muñal comme ni la yonent yi jiitu woon ulul azmi muñe woon kon jullitam dafa war a muñ ci xeeti muñ yëpp bu njëkk bi mooy muñ topp yàlla def ndigal yàlla yi wastaino bi sabri wasalaam suñ borom daf ne dee leen dimbandikoo muñ ak julli muñ itam mooy yàlla muñ bàyyi mooy yàlla mooy yàlla boo muñul doo ko mën a bax ni nga xamee ne boo muñul doo mën a topp yàlla xam nga ne yowu fajar ci waxtu sedd bi dem jàpp wala sangu dem ca jàkka ja julli loolu am na loo muñ am na lu sa bakkan bëggoon nga bàyyi loola muñ ko moo tax nga man koo def muñ yi nga xam ne itam nag ay musiba la yooyu wàcc ko borom bi waxee wala dablu wannakum bi shay'in min al wal joo wa naqsin min al amwal wal anfusi wa samarat waaye wa bashiri sabirin fokk ma nattu leen te ñi gëm yàlla lay waxal bul ne nattu yi yéefar yi lay wax ñi gëmul yàlla rek lay nattu déedéet wala ñi seen diine manqué déedéet wala dablu wannakum kum googu ñi gëm yàlla lay wax dinaa leen nattu bi shay'in min al wal joo ak tiitaange ak xiif wa naqsin min al amwal alal ju manqué wa samaraat waaye nag boobaa wa bassiri sabirin bégalal ñay muñ ñooñu mooy ñan alladina ida asabathu musiba qaalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun ñi nga xam ne bu leen musiba dalee ñu ne musiba mii de yàlla moonu ko teg waaye yàlla moonu moom ci moom la ñuy dellu moo tax kon sañ nañoo teg musiba ndax doomu aadama sa alal boo ci doon jëfandikoo tey jël sam xar di ko rendi tey buñ waaw ah lu tax ngay rendi xar mi la nga cay teg mooy saam xaram maa moom xar mi loolu ngi bëgg a wax ne droit boobu kon am nga droit pour rendi ko te pourtant moomeel gi nga ko moomeel sax matul xar mi defaroo ko lim daan dunde di ko lekk defaroo ko ngelaw lim doon nooyi defaroo ko te nga ne yaa moom sañ nga koo rend waaw kon nag kii la bind nag di la wërsëgal ngelaw li nga noyyi waaw bu jëfee ci kon sañu ko moo tax inna lillahi loolu koy teg da ngay reconnaître da yàllaa la moom kon d'accord nga ci lim def ci yow arrida waaw waroo ci amuna xar moo tax li ngay dégg léeg bu ñuy tàggee sax naan ñi ngi am naqar ak tiis baatu naqar boobu waruñu koy wax ndax naqar mooy loo xam ne boo sañoon du am te li gën a bari sax mere nga ki ko def man nga ne ñi ngi am tiis moom mooy loo xam ne metti na ci yow rek baax na waaye metti mi ngi mel ne docteur bi lay pikiir pikiir bi amoo ciw naqar waaye nag metti na amoo ciw naqar moom ndax waaye nag amoo ciw naqar naqar yi wala bu la naqar woon nga ne ko bu pikiir waaw wala yow mi ñuy opéré opération bi man nga ne tiis na opéré bi de metti na lool moom man nga ko wax waaye opéré bi naqari na maa moom xool lu tax nga dem ñu la opéré comme naqari na la <laughs> moom wóoru naqari moo tax borom bi tabaaraka wa taala rida boobu muy gërëm loolu lay bëgg ñu di ko am ci ay jëfam boo gisee kuy dellu yowmal xiyaam yaa ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika raadiya raadiya fekk nga gërëm lépp lu yàlla dogal boobaay itam nag mardiya yàlla bi gërëm na lépp looy jëf loo jëfati yàlla gërëm na ko yowet lu yàlla jëf gërëm nga ko moo xam neex na ci sa bakkan wala naqare na ci sa foofu la ab jullit war yegg loolu nag la fa mën a eggale nit ki muy muñ muy muñ te ak nag yàlla lu mën a teg ciw tii soo wëlbati ko xool lim la defal ci xéewal xéewal yi ëpp fuf xéewal yi ëpp musiba yi xéewal yi mu ëpp musiba yi waaye nag musiba yi la ñuy jàmbat moom la ñuy siiwal xéewal yi ñu ne cell waaw xéewal yi moom dañ naan cell moo tax sant sant dafa jafe moo tax boroom bi ne wa xalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam ñi ñoo may sant boo gisee iblis moom buntub sant boobu fa la kari nit ñi nee na bay bu ngeen raw ma ci buntub julleeg buntub koor ak bunt bu ma leen dàq rek ngeen jaar fa waaye buntub sant nag fa lay taxaw nag wala tajidu aksarahum shakirin danaa fexe ba ñu ëpp ñu nii duñ la sant waaw loo leen defal ñu sant keneen benn ñu naw ko seen bopp sama liggéeyu ndey ah sama baaxu baay sama ñaanuk sëriñ sama compétence yooyu fa lañ koy delloo te borom bi ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah wa ma bikum min ni'matin fa min allah am maa nag bu musiba xewee rek ñu ne yàllaa ko dogal de lu mu def ci njaaxum lu mu rëy rëy ñu ne bàyyi leen ko rek dogalub yàlla la waaw <laughs> dogalub yàlla la waaw xoola yàlla ni ñu koy tooñe rek su xéewal amee ñu askanale keneen su ba amee ñu ne yàllaa ko def <laughs> mu ko kon loolu mooy ñàkk sant borom bi tabaraka wa te sant nee na su ngeen ko defee ci laa leen di dollee la in shakartum la asidannakum waaye wala in kafartum inna azabi la shadid beneen bi mooy at tawaado te mooy nag suufeel sa bopp modeste jullit bi wërta rëy parce que mboolem loo fi am ci àdduna lu la yàlla dénk la waroo cee rëy la su dee xam-xam la xam-xam bi dañ la ko dénk rek dañ cee war a jariñu jariñ ci ñeneen judduwaale woo ko fi woon wallahu axrajakum min butuuni ummahatikum la taalamuuna shay'a bi ngeen di génn seen biir yaay xamu leen dara kon li nga fi xam ay nit la ko xamal loo fi xam nag dañ la ko xamal ndax moom yàlla moom yonente bi la doon wax yi moom dem na leneen lu waay xam moom ci yonente bi lay jógee ay nit a ko jàng di ko jàng di ko jàng ba mu yegg si ñu jàngal la loo ci xamit la nga xamute ko ëpp su ko defee ne kon loolu waroo ko pour koriwo su dee alal itam noonu alal ji loo dendal dogu la du loo moom ndax loo moom moom foo dem rek ko fay jëme kenn du la mën a tàggaleeg moom waaye loo xam ne da ngeen a dend rek bis booy dem fi koy ba léeg-léeg sax boo feebaree wala tëlatoo ko sax moom dootoo ci jariñu te itam alal ñu bari dañ dul xam ne alal des nga tuut dem na tuuti rek moom moo la moom léegi moo lay liggéeyloo su fekkee da ngaa di am wut alal alal da ko war a def mooy waaye waroo am objectif ne ba bëgg a bari alal bokk ci borom alal yi la bëgg nga xam ne toujours luy wàññi alal ji moom ngay daw lu ko yokk moom ngay wut di bàyyi bunt yiw yu baree baree bari ne bu ma ci joxee sama nangam day wàññi lii ma ciy bëgg def bu ma ko dugaloon fii génne ko fii génne ko fii am ci nangam waaw loola bu boobaa kooku moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam taisha abdu dirham wa dinaar torox na koo xam ne alal lay jaamu léegi te alal moom bu la wutalee kër wutal la dépense wutal la looy war boo fee baree man cee faju foofu la alal mën a yab ak yow li ci des nag alal jee la emboîté nag alal ji la embauché pour nga yokk ko moom alal ji ngay liggéeyal fi mu nekk mais yow alal ji fay la salaire boo xam ne mënatoo ko weesu te itam loolu nga ci abit yaag nit ñi ko bokk kër doo ci lekk yow képp oto doo ko dawal yow képp ñam doo ko lekk yow képp kon alal jooja kon te nag yow la ñuy laaj lépp nag te sax ñooñu ko ko bokkal sax léeg ñoo la ciy ëppale léeg-léeg patron bi surga yi ñoom ñooy añ heure surge yi ñooy añ heure de patron bi moom du añ heure ma ngi ca réunion ba boobu ay quatre heures lay ñëw boobu añ ba sedd guy du tëdd heure itam waaw du tëdd heure kon loolu nag ku ko am kon ku ko xam alal jooju dëgg la lu ñu war a wut la yonente bi sallallahu alayhi nee na ni'ma almaalu saalih bi yadi rajuli saalih alal ju lew day baax na nekk ci loxol nit ku baax waaye nag na ci wecciku da nga koy wecciku tuyaaba waaw alal yowmal xiyaam mo neb alal doxu fa yowma laa yanfa'u maal lu fa dox tuyaaba da nga koy da ngay wecciku mo ne bi muy mel na nga tey boo demoon Amérique CFA doxu fa ne booy bëgg a dem Amérique da ngay wecc ko fi ay dollar kon nag bala ngaa dem àllaaxira sa alal ji wecc ko tuyaaba moo ne tuyaaba moo dox foofu waaw nga yóbbaale wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah kon tawaadoo boobu jullit daf ko war a bàyyi xel te bu ñu xoolee yonente bi sallallahu alayhi wa alihi nga xam ne ku mas a dox ci kaw suuf moo la ëpp daraja moo la ëpp cër fa suñu borom tabaraka wa taala daanañ ko gis léeg-léeg muy mbubbam di ko ñëw du làqu du dem fenn day toog di mbub ñaw mbubam nga fekk ko muy ñaw mbubam te nun juróon kenn ku ne rus ngaa sol sa mbub mu ñu ñaw mu ñu mu xotte ko ñu ne sa mbub mi daa xotte ko nga gaar ko nii ñaw ko ay rus nañ ko sol daa nañ ko fekk aw dàllam dagg mu di ko defaraat daa nañ ko fekk mu nekk ak ay jigéenam di leen dimbali ca liggéeyu kër ga daana romb ay gone di leen di nuyu daana tam di dox ci biir marché yi bañ di ko sax naan maali haasa rasul yaakulu taam wa

moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko gisee muy dox ci marché ñu naan bii yonente yonente muy dox ci marché maa li xaasal rasul di lekk ñam yàkkul te wa yamsi fil aswaq law laa unzila ilayhi malak fa yakuna maahu nazira daa waroon a ànd ak malaaka moo tax bañ waxee ba jeexal daf ne subhanallah hal kuntu illa basaran rasula ba ne ko lan nu'mina laka atta tufajjira la daa bel ardi yan boo an aw takuna laka jannatu min naxilin wa inabin فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة خبيرا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا xoolal lañ ko jege yëpp dun la gëm li fekk defoon nangam defoon nangam defoon nangam makka gi ballal ko ndox mi di daw wala boog nga wax asamaan si mu dagge ci sunu kaw di daanu aw tusxita sama alayna kisafan wala boog nga wax yàlla muy ànd ak malaayika yi aw taatiye billahi wal malaayikatu xabilan wala boog yow nga am néegu wurus aw yekkoonu laka baytun min suxra wala boog nga yéeg ci asamaan si aw tarxa fi sama te nag boo yéegoon ci asamaan si nag duñ ko gëm di fekk wàccaale woo ab téere waaw <laughs> parce que ñu ngi seen xel demaan na ci ba yaa buñ ko fi waxee kat ba daa yéeg na fi moo tax ñu boo yéegee rek da ngay andaale téere de wala nu'mina li ruqiyyika hatta tunzila alayna kitaban naqra'uhu xool suñu borom ne ko xool subhaana rabbi hal kuntu ila basaran xoolal waaw man nit doomu leen ku ñu yónni nag lii ngeen wax ma nekkul ci sama loxo ah xam nga kon ñu baree baree bari nag lay lañ leen di gëme mooy yu mel nii su ko defee nag ñu koy woote woo mën naa nangam mën naa moo moo doxloo lafañ ba moo wax loo muuma ba moo def loo nangam te nag dara duñ ci prouvé dara nag waaye loolu la ci jéem a wane ne moom am na cër ci yàlla au lieu ñu wane cër ci yàlla mooy am na xam-xam ma ngay jàggale alquran ak sunna bu leer waaye ña muy wut ñu koy meebal di ko peegal yu mel noonu ay xista lañ lay nett li yu dul jeex ci moom ba kii de mooy waaja waaw waaye nag boo doon ban la fañ la doxal ñu ne koo contre kon <coughs> boo doon doxaloon la fañ dama bëggee man ban la fañ bi mu doxaloo ñu ne da koo contre waaw gumba gi mu xooloo laa bëggul ngeen ma ko rek ñu ne ma kii daal gumba la woon moo ko xooloo bi wilaayam ngeen ko xooloo ñu naa ah yow da nga ko diigat <laughs> loolu lañ lay daal di wax te yes aloo naka moom ñàkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam aloo naka du jeex yes aloo nag mais koo xam ne boo dee yes aloo naka laajee ñu la da nga ko diigat li muy tekki kon mooy jawaab moo fa nekkul kon tawaadoox boobu bokk na ci mandargay tawaadoox nag muy modeste wàcce sa bopp mooy di diisoo di diisoo ak fu sa daraja mën a toll ñi nga séqal mbir mi da ngaa war di diisoo ñoom yonente bi alayhi salaatu wasalaam fi mu eggoon ci daraja ak cër ak suñu borom di ko waxyu teewul mu ne ko wasaawiruhum fil amri wa saawirhum fil amri abu hurayra radiallahu anhu mi ngi wax ne maa raaytu ahadan aksar masuratan li ashaabihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam gisuma kenn ku dàq diisoo ki saxaabaam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu daan bëgg a def ci mbir moo xam ne mbir mu yitteel ñëpp la day dajale saxaaba yi dañuy wax asalaatu jaamia waxtu julli jotu dañ naan asalaatu jaamia mboolu mépp daje ci jàkka ji mu daal di wax la mu bëgg a wax daal di ubbil ñëpp nag ñu joxe ci seen xalaat waaw du tee nag fa isaa asabta nag fa tawakkal ala allah su ko defee soo dogoo nag gis ne lii moo ca war nag du ca seet ay majorité ak li ëpp lu ñu wax déedéet dëgg gi rek lay seet moom donte kenn doo nga ci féetee mu jëm foofu waaye nag kenn du ne yëguma ko woon ma dana diisug ñëpp kon loolu itam jullit da ko war a bàyyi xel su ko yàlla joxee am lu mu jiite tàmbale ko ci biir këram nay diisug njabootam diisoo ki soxnaam diisoo ki doomam diisoo ki surgaam diisug ñëpp bu dee fa muy liggéey itam noonu loolu nag du tee nag mu am fulla yi nag décider nag bu waree décider donte naqari na ña ca def kon loolu lu mat da bàyyi xel la alxasan dafa wax ne doomu aadama nit ñi ñett lañ mu ne rajulun rajul wa rajulun nisfu rajul wa rajulun laa rajul <laughs> nee na rajulun rajul mooy waa xam ne ju am xalaat la waaye day diisoo day jëfandikoo xalaatu keneen booleeg basam waa ju am xalaat la ju am xam-xam la waaye lu muy def lu nekk dana dolli koo xalaatu ñeneen kooku nee na ñaari nit la rajulun rajul la waa joo xam ne nee na ju am xalaat la ju am xam-xam la waaye du diisoo kenn nee na kooku genn wàllu nit la lu xam-xamam rëy rëy waaye du diisoo genn wàllu nit la nee na ki nga xam ne nag moom amul xam-xam amul xalaat te du diisee moom nee na kooku du nit laa rajul kooku amul kooku du dara kon nee ñetti xeet yooyu am ki xam am xam-xam lool am xalaat lool waaye lu muy dugg la dana ci dolli koo xalaat yi ñu ci def kooku day mel taxawaayu ñaari jëmm la taxaw bu booba kon loolu moo tax lislaam digle ko ne wa amruhum suura na kon nag mbokk yi lii ab gaaral la rek boo xam ne ni ñu waxe woon ci tàmbali laaj bi ne dañ ne jullit ñi fu ñu toll ci jàpp alquran ak sunna am na lu ñu leen gaaral ci ni ñu ja war a jàppee alquran ak sunna la ca jiitu mooy kenn ku nekk nga posé bopp sa question ci foo toll ci jàng alquran ak sunna ndax bala nga koo mën a jàpp da nga koy jàng te njàng mi nag du jeex bu kenn mag laa léegi damaa weesu jàng déedéet aw jàngiin mooy wees mais jàng du wees jàngiin nag daa bari aw jàngiin mooy wees xëy na fab say bagage yëpp dem ca daara ja toog moom kooku moom dana wees nit ki dana toll foo xam ne duutu ko man waaye lool rek du jàng jàkka ja jàngukaay la war a doon boo gisee imaam ñu di ko tànn ca borom xam-xam ba ya'umun naasu aqra'uhum li kitaabillah la ñu wax ki war a jiite nit ñi duñ ci seet ay at duñ ci seet aw sant duñ ci seet ab juddu ki dàq jàng téereb yàlla bi la ñu wax ndax dañoo bëgg mu koy jàngale yemul ci jiite rek du jàggee ne asalaamaaleykum allahu akbar asalaamaaleykum rek lool lañu dooy doyee imaam déedéet daa war di jàngale waaw julli gu ñu julli wala waxtu wu xaw a yaatu mu jàngale ab xadis jàngale ab aaya loolu bu ñu ko dëkkee fukki at ñaar fukki at fanweeri at bis bu seen nga déggu xadis wala ab aaya da ngay mujj nekk borom xam-xam la ñu jànge moo tax mu ne kay jiite na doon aqra'uhum li kitabillah loolu ab jàngal ñaareel ba itam njàng yomb na léegi ci jumtukaay yi xam ne day garde ay wax xam bu jëkkoon jotaay bi boo ko fekkewul dañ la koy nettali rek mais mais mënul dégg li ma fi mais fi mu ne mën nga koo dégloo noo xam ne ñi fi nekkoon sax am na ca loo xam ne fàttali leen ci tuxali wax yooyu yëpp ay jàng la wut heure boo xam ne ci sa kër danga nga cay toog déglu lu mel noonu léeg-léeg te bokk kook sa njaboot loolu mooy tax sa digganteeg alquran ak sunna jàpp gi nekk jàppul wér su ko defee sa wàllu pas-pas itam nga yor ci pas-pasu alquran parce que kan nun bari na lu ñuy faral di wax naan nooni lislaam yi dañ ñuy xeex ci biti li ci gën a bari su problème bi suñu bopp la sunu pas-pas yi ci bopp sunu xàmb yeeg sunu xërëm yeeg sunu buxaama yeeg yooyu yooyu lu ñu yoonu tubaab bi tubaab bi moo nu ko indi tubaab bi moo nuy tampale xam tubaab bi tampalul kenn xam yooyu ñun ñoo ko indi suñu bopp te nag suñu borom tabaraka ko taala ki muy dimbali nee na mooy ki gëm gëm yàlla gu wér wa alay xaqan alayna nasrul muminin noonu yooyu ñuy wax bala noo yàlla dimbali ci seen kaw day fekk du am tawxid tawxid bi nag kon noo war a réparer suñu bopp ci suñu biir yi nu doonoon ci ay aada ci cosaan ak yépp lu ci baax l'islam garde na ko waaye lu ca l'islam tere ñu bàyyi ko waaye ñu bari soo leen waxee loolu ñu ne kii diine ju bees la indi kii li mu wax kii maam yeeg maamaat yi lii ñu daan jëf ni ko alquran waxee rek isa qiila lahum taalaw ila ma anzala allahu wa ila rasul al munafiqina yasudduuna anka sududan nga daal di kon nag ñu réparé waat suñu pas-pas ba mu dëppoo ak alquran ak sunna sunuy jaamu yàlla itam yi ñuy fent di ko def ci ay cérémonie yu dul jeex yoo xam ne lañ ciy ñàkk ci alal ak liñ ciy jël ci temps kenn xamul lu mu toll te mënta am dalil ci alquran a koy dolle koo daraja rek Euh, démonstration de force la rek démonstration de force la bu ku la bëgg a wane xool leen yéen may contre waaye xool mbooloo mi ma am waaw ay meeting la rek ay démonstration de force la ah pour mooy yow nga ragal ko wuu kii kat yaboon naa ko waaye moom dëkk kat moom kilifa gu mag la kat waaw diw ak diw gis naa leen ñu teew fa diw teew na fa diw teew na fa kon diw fonk na ko yooyu itam bokk na ci li gën a tardel julli yooyu loolu yoonu tubaab bi wala yoonu yëfari seen yoon nekk ci suñu mbiri dafa bari yu ñuy def yoo xam ne bala noo wax ñi ci bitti ne ñoo nuy xeex dafa am yoo xam ne suñu bopp noo noo noo ko yoral suñu bopp noo ko war a rep te yooyu yëpp buñu ko réparé ba yor diine jiwét kenn duñu mën a xeex kenn duñu mën a xeex waaye nag fokk nag ñu réparé pas-pas yi réparé jaamu yàlla yi réparé itam nag jikko yi yor jikko yi l'islam parce que nag jullit laa ba noppi di jëfandikoo riba bu ñu seetee yaa ayyuhal lazina amanu yi ci alquran am na benn waxtaan wuñ ci def wax dañ koo dajale yépp yi ci nekk ay ndigal ak yi ci nekk ay tere yooyu benn jullit bu nekk da cee war a natt boppam mat na juróom ñett fukk ak ñeent yoo xam ne yàlla ñi gëm yàlla lay woo yaa ayyuhal lazina amanu lay wax yéen ñi gëm yàlla benn ndigal a cay tegu wala tere cay boo xoolee riba bokk na ci yem tare yaa ayyuhal ma baqiya min riba in kuntum mu'minin xoola amanu la ubbee aaya bi iman la ko tajaate yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullah a wasaroo maa baqiya min arriba in kuntum muminin teg ci ne fa in lam tafalu fasanoo bi xarbin min allahi wa rasuli ah xam ne nit ñi dañoo dar su ngeen ko bàyyiwul parce que ko ne mënu ma koo bàyyi banque yi moom mënu ma ko bàyyi léeg-léeg nit la ma la ko jéem a bëgg daal dugal ba nga dagadalal ko waaw su ma loroo nag dama ne ci daroora ndax mënu maa leb ci banque yi mënu maa def daroora mooy loo xam ne soo ko amul doo dund daroo ak xaaja bokkut aajo nag mooy loo xam ne da nga bëgg ay billet bëgg nga kër gu baax ba nga oto bu baax bëgg nga nangam loolu bëgg laa tax a dugg ci riba nga ne damaa ne ci daroora daroora mooy loo xam ne moom fii nga toll loru ci mënatoo seq benn jéega su amul doo dund mu mel ne xiif ba le war a lekk médd nga xam ne benn minute su weesoo te lekkul ci médd bi rek mu faatu waaw te boobaa dañoo wax ne na ca lekk lu ko mën a téye waxuñu na ca rek de na ca lekk lu ko mën a moo tax mu ne fa manit turra fii maxmasatin xayra baax wala aadin ñaar yooyu lay boole xayra baaxin wala aadin xayra baax mbewte bu mu ko ca dugal mu koy lekk te aajo woowu ko waaye wala aadin bu mu ca jéggi dayo itam ba lekk ca lu mu ci war ta lekk te fekk daaloo kon yooyu yépp ay mbir la yoo xam ne nañ ci réparer suñu bopp loolu mooy tekkiwaat suñu diggante ak alquran ak sunna bi kenn ku ne nag ni ñu ko waxee yaay natt sa bopp balil insaanu ala nafsihi basira walaw alqa maasira borom bi nee na kenn ku ne xam nga sa bopp boo tegoon fee say ngant waaye say waaye nag ngay teg ma daal maa ngi def riba sax waaye damaa jékkagut moo tax waaw dama amul dama amul pexe waaw moo tax mu ne walaw alxaama azira doomu aadama bu tegoon ni ngantam fee ay waaye mu teg ko fee dana mën a gis boppam waaye sikk bu mu gis rek naan man na waaye nanga waaye maa ngi ñëpp a yam diw da koy def diw da koy def waaw wut ay lay teg kon nag kenn ku ne xam nga sa bopp naga seetaat sa bopp ci fexe ko dëppoog alquran ak sunna balaa dee dikk ndax kat ko dajeeg borom bi tabaraka wa taala ci ñaar yooyu moom la lay atte ñaar yooyu watara kulla ummatin jaasiya kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha yowmal xiyam tara kulla ummatin jaasiya xeet wu de yaa nga ne rëmm toog di déglu yàlla pour mu woola di rappel xeet par xeet xeet wu ñu woo woo sab yonent teg sa téere kullu ummatin tuddaa ila kitaabiha al yowma tujji saw na maa kuntum taamalu borom bi ne haata kitaabuna téere bi laa wàcce woon ci yéen yantiqu aleykum bil xaq yéen itam la ngeen dul def inna kunna nastamsiqu ma kuntum taamalu yéen it seen téere ngi nii téere bi ma wàcc woon ci yéen mi ngi nii boo tax ñaari iqra rek boo am ci alquran benn bi boobu yàlla bi ci def sa booba iqra bismi rabbika allati xalaq iqra kitabaka ñaari yooyu rek fi ne mu jeex takk ñaari iqra rek ah ñaari iqra rek boo tax mu ne la bu yomal xëy moom presque dana man de sama téere gi ne haada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq yow itam inna kunna nastansiqu ma kuntum taamaluun mboolem lu ngeen daan jëf copié woon nañ ko bind enregistré nañ ko mi ngi nii tey iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka xasiba iqra bii nag bu njëkk bii nag mooy tax iqra bare normal iqra bismi rabbika la si xalaq bi mooy tax iqra kitabaka neex waaw waaw keneen ak iqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin xisaabiya gis nga ka texe loola fa amma man utiya kitaabahu bi yamini fa yaqul ha um iqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin xisabiya borom bi ne fa huwa fi ichatin raadiya fi jannatin aaliya qutuufuha daaniya kulo wasrabo hani an bi ma aslabtu fi ayami alxaaliya waaye wa amma man utiya kitaabahu bi shimalihi ka jële téeram càmmoñ fa yaqulu yaa laytani lam uta kitaabiya ndax lan walam adri ma xisaabiya réglé dama ko mës ta bàyyi xel xam nga di yëpp loo xam ne bàyyi woon a da nga ab def contrat bi bokkul ak ki nga xam ne li muy def moom mi ngi ci bàyyi xel ne bis dana ñëw ñu teg ko comptabiliser lépp ba xam normal na mu dem moo tax kenn inni sanantu anni mulaqin xisaabiya kenn moom wala mu adri maa xisaabiya gis nga xam bokkuñu keneen kenn na inni sanantu anni mulaqin xisaabiya dafa ma wóoroon ne lii may def xam nga bu ñu tegee ci bitig jox la alal joo xam ne leer la dana ñëw ñu teg la def seet lépp kon facture booy def ak dërëm sax boo ko dépensé da nga ko bind ndax bis dana ñëw ñu taaj la ne la nangam ji ana facture am nangam ji foo ko jaay waaye bu fekkee ne nag moom jàpp nga ne loolu amut di mayee ka tasaaree ka pasar pasare bu ñu ñëw dana wax bitig bi nag moom la ñuy si tey ah jàpp nga ah man da ngeen may régler nekk xaw ma woon ne bitig bi danañ ko régler <laughs> bokk la ne ki nga xam ne mi ngi ci bitig bi mais xam na ne dañ koy régler ñaar yooyu rek la kee nee na moom damaa jàppoon dañ may régler kii ne damaa jàppoon ne kenn du ma régler ka jàppoon dañ koy régler moom te xel ndax bàyyi woon na ko xel waaye ka jàppoon ne duñ ko régler nag ah borom bi wax na fa mu mujj kon nag yàlla nu yàlla defal tawfiq ci ñu mën a dëppoog alquran ak sunna ni ma leen ko waxee woon rek ñu ngi jégluwaat ci mujj gi ki ngeen doon def loo waxtaan wi lim ci waroon a mën a leeral nun mënuñ cee leeral lu toll noonu waaye nag def nañ suñu kem kattan xëy na su amee beneen waxtu bu gën a yaatu dana leen jëlaatal bunt bi leeralaatal leen ko beneen leeral bu gën a jot insha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulilah <laughs> eh, jazakumullah xayran wa ahsana ilaykum yàlla yàlla fay defe naa leer na waaw leer na li ngay ragal moom amu ci leer na te jëriñu nañu yàlla yàlla fay dinañ jéem a fàttali rek surtout ñu tardé tuuti dafa ñu woon résultat maanaam lëkkaloo bi war a nekk suñu diggante ak alquran ak sunna mu ne dañoo war a ngoy ci ñoom ñaar. mbokk bu jëkk bi mu ne dañu war a ngoy ci ñoom ñaar ngoy ci ñoom ñaar mooy jëfe seeni ndigal moytu seeni tere loolu nag mi ngi gën a yëwe ne ci ñu xam leen jëfe leen. waa xam nag ci njàng lay dooree wax nañu it jubluwaayu alquran ak sunna bu dee alquran dafa ñuy génnee ci ay lëndëm lim na xeeti lëndëm yi yóbbuñu ci leer bu dee sunna dafa ñuy xamal nan lañuy ñuy appliquer bi ñu bañ a waroo ak yenent bi sallallahu alayhi wa ndax waroog moom coono la boo xam ne ëllëg du am résultat yàlla nañ ci yàlla musal nee na ñoom ñaar ñëpp ci yàlla lañ jóge kon dañu war a roy yonent bi sallallahu alayhi wa ci ni ñuy jaamoo borom bi ci domaine yépp ñu roy sonnaam ak sunna ñi nga xam ne ñoo ko wuutu woon te mooy ñeent ñi ci pas-pas ñu ngi noonu ñu weddi mbooleem li nga xam ne mooy at tawaafit leeralal nañu it diggante imaan ak tawxiid joxoñ nañu njiitu wéetalkat yàlla yi te mooy Ibrahima alayhi salaam taxawaayam ak ñi mu bokkaloon jamono wax na it ci wàllu jëflante maanaam ki tënku ci alquran ak sunna ci wàllu jëflante ni nga war a nekkee ak ñi nga nekkal fii war nga rafet jikko war nga am kersa war nga du mooyu àdduna ci ni mu ko leeralee war nga nekk ku wóor gis ngeen àddina bi tey tey détournement yi ni ñu bare lu ñu dénk waaye rek mu détourné te koo laaj mu nekk jullit war nañu muñ te yàlla tax war nañu wàccee sunu bopp kon euh, jël na alquran teg ko ci balance jéem xëcc ku nekk ci ñun mu seet fan nga ci toll defe naa ne ñun nag li des mooy ñu xoolaat ñun fan lañu ñu toll ci jëfe alquran ak sunna fan la ñu toll ci pas-pas bokk yi war nañu xool alquran ak ni ko yonent bi jàngale far nañu fan lañu ñu toll ci alquran ak sunna ci ibaadaat ginnaaw bi mu ñu wonee ne yonent bi mooy royukaay ndax ñu ngi jàppee ni yonent bi di jàppee ndax ñu ngi tiimee noonu ndax ñu ngi jullee noonu ndax ñu ngi wirdee noonu ndax tënk nañu ci wirde yonent bi mënuñ ko jeexal ba ni ñuy jaamoo yàlla jeex ku nekk yaa gën a xam sa bopp ndax sunu relation ak ñi ñu nekkal fii ci àddina bi ndax ñu ngi mel ni yonent bi meloon ak ñi mu nekkal njiit yi moo xam côté diina la moo xam côté àddina la ndax yonent bi moo doon njiit joxoñ na ko de daan génn di dem ci marché yi di gis lu ñuy gis moo tax lu ku ku tarxiis rek nekk da koy gis mais ñun fexe nañu ba koo xam ne moom moom la ñuy rus ci wàllu diine ñu tëj ko ci biir kër gi lu lu xew ñun ñoo koy informer kon loolu pexe yi ñu fexeel kon mbokk yi du guddal foofu kon daanaka waxtaan yu mel nii dafa war a am jamono ju ne malgré bett nañ ko nee na yaakaar na ne àggul fi mu war a àgg wante ñun kay àgg nga yaa yaa yàlla na la yàlla fay vraiment li des ñun la nañu góor góorgóorlu ñu xam ne àddina bii këru liggéey la de misaal na ko tool la danga war a dem ngir béy mais ñu bañ a topp àddina bi ba fàtte li tax yàlla indi ñu fii yàlla indi wuñu fii lu dul ngir ñu jaamu ni mu bëggee ñu jaamu ko it def na ko ci alquran formé na yonent bi ne won leen mais bu ñu xoolee tey fu ñu toll ak sunna yonent bi doy na waar moom mooy ndaare loolu mooy réalité Sénégal de sunu diine réalité bi ci ñetti mbir la aju ci mazhab mooy ngir ci tariqa ci sunna dañuy woote yàlla nañu yàlla kii ci sunna nitu sunna lañu ku nekk loolu lay woote mais bu yonent bi weranteeg ngir mi nga bàyyi ngir mi topp yonent bi eh, nga bàyyi yonent bi topp ngir mi ngir mi bu werantee ak sa tariqa nga bàyyi ngir mi topp sa tariqa loolu ban résultat lañ ciy tiire mooy sunna moo nekk ndaare saa yu ñu joxee sunna cëram mooy day fekk kat ngir mi ak tariqa bi werante wu ak moom mm. te pourtant ñi baaxoon ci xeet wi mm. ñi jiite woon ngir yi mm. ku nekk ci ñoom waxoon na mm. lépp lu ngeen dégg ci ci ñun mm. muy wax mbaa jëf mm. seet leen nan la mel ak sunna yonent bi bu waroo bàyyi leen ngeen topp sunna loolu képp ku baaxoon ci xeet wi moo xam nitu diine nga moo xam saxaaba nga moo xam lu mu mante doon ku baax nga wax nga li bàyyi kon dama gis ne ñi topp ñooñu mooy ñiy jiital sunna mooy fekk saa bu sunna weranteeg lu dul moom nga topp sunna mais tey boo toppee sunna dañ lay ne indi nga lu bees kon yàlla na nu yàlla may dégg ak topp kon léegi euh, dañuy delloo kàddu gi yéen mbokk yi ak kilifa yi euh, Ousseynou dinañ ko delloowaat kàddu gi xëy na du ñàkk ñi bugg a yokk loolu dinañ ko ci soxla bu baax day gën a riisal wax ji du ñàkk yit ñu bugg laaj loolu it seen àq la mais li may recommander rek di jiital sama bopp mooy nañu xam ne ku nekk na xool boppam waaw ku nekk bu jógee tey na xoolaat boppam nan la mel ak alquran ak sunna waaw mooy nan la mel ak alquran ak njàngale yonent bi sallallahu alayhi ndax lu bari soppeeku na lu bari xew na ñun ñëpp ñoo ko xam ginnaaw yonent bi mbir yi xew na am na yu réer am na yu ñu dolli ñambaas nañu ba tey du jeex waaw ëttu diine yi mënoo ko jeexal tey mais yàlla li mu ñu mooy ñu dellu ci yonent bi loolu it la yonent bi dénkaane fanam yu mujj nokkeem yu mujje yonent bu ne dénk na moom la mu dénk mooy tey leen ci sama sunna wax na ko ci waxtaan bi tey leen ci ba mu dëgër ngeen màtt ko bu mu leen rëcc kon yàlla na nu yàlla may tawfiq ba yombalal lu loolu kon Cheikh Ousseynou إذا الكلمة معك وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد mbokk yi xanaa jëggal ngeen xam ne ne seen dikk bi tudd Ndakaaru da ngay fanaan ak say soxla nga daal di ubbi sa néeg nga fekk soxla Ndakaaru ci mu ñëwee xaar ci sa buntu néeg faw nga xëy waaye maa ngi fanaandoo incha allahu taala ñëw ndax depuis barka démb laa fas yéene ñëw dafa mel na ne man li may wax kanaa jottali leen nuyoo président national oustaz Ahmed Sow ak euh, amiru daawa euh, Babacar Sall ñu ngi ci riñu ñu ngi ci riñu Colobane tériño bi man ak moom ñoo fa waroon nekkandoo mu ne ma ñawal ma fi lu ci des nag mooy thème bi ma fekk ñi nga xam ne ni ñu ngi koy euh, faram-fàccee fi boromam la ko jox kii ko mun la ko jox kon nag moom lu mu ci leeral man su ma ci jéemee leeral kon damay lëndëmal te bëgguma lëndëmal te bëgguma lëndëmal kon xanaa kay ñaan yàlla subhanahu wa yàlla def ko conférence buy réussir bu réussir ci l'islam de bu ré du bu réussir ci jaman xam ngeen ne ne conférence bu réussir ci jaman mooy bi nga xam ne ne ne conférencier bi jàpp na thème bi dominé ko waaw joxe ci ay xalaat yu mu yoroon yépp ak ñeneen xalaat yi nga xam ne yi ci yu mu ci sukkandiku yépp mu indi ko bu mu doy bu paree loolu question yi ñëw mu tontu question yépp bu mu jeex loolu mooy conférence bu réussir ci jamono waaye conférence bi nga xam ne ne bu réussir ci yàlla mooy conférence bi nga xam ne ne boromam bu ma ko defee ba pare ñi ko teewee woon bu ñu jógee foofu ku nekk am na lu conférence bi def ci yow da ngay sensé doxalin da ngay sensé dundin da ngay sensé jëflante ngir li nga déggoon ci conférence bi bi an yahdiya bika allahu rajulan wahidan daal di jubale fii benn doomu aadama bi nga xam ne ne ne bu xawoon sanku yàlla jindi ko ci conférence bi mu daal di jaar siraatal mustaqim loolu nekk sansam mu daal di ci jéggi mu dem aljanna boobu mooy conférence buy bu réussir kon yalla na ko yàlla def conférence buy réussir wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf. waaleykum salaam moom tamit ñu ngi gërëm teewaay bi bi.

conférence day am loolu mot na léegi lu war a mot fanweeri at amul benn at boo xamante ne lu dul conférence bi day am kon incha allah tamit xam ngeen déwén bu soobee yàlla subhanahu wa taala incha allah conférence bi dina am ci même moment yi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dajale waa ci jamono boobu loolu yàlla ko yàlla ko yàlla def léegi nag ngeen ko bëri xam ngeen des nag question réponse ma jox Ibrahima kàddu bi parce que am na tuuti question mais nag quatorze heures dañuy yëpp ci jotaay pour julli te bu ñu jullee incha allah dootu ñu jëlee ci fa la mbir mi di ñëw wa salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum wa rahmatulah. am na laaj yi fi ñëw. léeg-léeg mu am laaj boo xam ne day répété wu waat. kon bi ci jëkk. kii day laaj lan mooy xaaji kersa. xayaa. maay aqsaamul xayaa. da ngay tontu di rek wala ma ma dem ba pare rek. loolu daanaka wax nañ ko ci waxtaan wi de. voilà li ko oustaz naa yaatal na loolu ci wàllu kersa. waaw. kii mi ngi lay sant di la gërëm. comme bi du ma ko fenn moom. voilà moo tax del tontu rek voilà léegi moo gën. Euh, su fekkee ci njuumte la ko. dana ñàkk a xam juum kooku moom dara nekku ci borom boo wax ne rabbana laa tu'aaxisna na nasiina aw axtana su fekkee danoo fàtte wala lu juum bu nu ko jàppee te yonent na suñ borom nangul na moo ko tey nag xëy na yàkkamti bëgg am añam teel a noppi wala yooyu moo tax moom te xam na ko xam na li ca war ba noppi def ko kooku moom kon am tamas kenn du wér bu tabaskee bu wér su amee da war a defar su amut it mu xam ne moom kon euh, def na lu war def boobu jaamu yàlla moom sànq na ko ndax defewu ko itam nag niñ ko war a defee ndax jaamu yàlla yi lay tax mu wér bu mu nekkee lu ñu digle nga defe ko la ko digale te yàlla tax nga def ko loolu mooy tax mu wér kon su fekkee moo ko tey daal ko ba noppi tey ko kon moom su fekkee nag ñàkk xam la wala fàtte la wala jóom la loolu moom incha allah bu jéggaloo rek suñu borom tabaraka taala na koo jéggal nangu nga ko jëfe waaw kii day laaj mu ne lan mooy àtte lan mooy taxawaayu jullit yi ci wote yi ndax dañuy jaayanteeg état boo xam ne lay bi la waaw moom lu yitteel jullit ñi la ndax itam li ñuy def du lu ñàkk solo lu am solo la loo xam ne dafa bari lu ñu aju ci seen i mbir lu ci seen i mbir dafa bokk sax ci seen diine ñu waroon a wut li jiite parce que diine ñu bari dañ koy faral di waxee loo xam ne ñiy xeex diine ak ñi doon not réewi jullit ñi ñoo dugal ci nit ñi. bopp yi ñu bari ne mbirum politique ak doxal adduna kooku mbirum adduna rek la te dafa salte yow nitu diine yow sa yoon ba mu ci ne ba tax ñuy dégg ñuy séddale naan bu ñuy wax léeg-léeg kilifay adduna yi ak kilifay diine yi waaye diine fu mu ci adduna boo ne kii kilifa diine la ne kii mooy kilifa adduna te diine ci adduna la kon kilifa adduna gi mooy yëf kilif mooy yëf kilifa diine gi kon ndax diine ci adduna la de yow ba xëy amul yàlla rek moom moom lépp li ma leen mbokkul yow ma lillahi wahidul qahar wal amru yow ma isin lillah kon fii la ñuy kilifa diine diine gi fii la doone kilifa fii la yilifa nit ñi ci diine maa ne nekk ci seen jiit fii ci adduna la loolu nag kon mbirum adduna mii doxal nit ñi da koo war a yitteel tey daanaka sax loolu rek la jiite diine kenn kenn yilifu ci kenn diine moom kenn ku ne sa diggante ak sa borom la gi am mbirum adduna la suñ borom bëgg ñu organiser ko ñu ànd ñu am ku ñu jiital joxe kàddu gi nit ñi ànd ak moom di def waaye bu dee sa digganteeg sa borom moom foofu moom kenn ku dee sa borom nga ko séqal sa digganteeg yonente bi sallallahu alayhi wasallam direct la war nga xam lu sunnaam di ko roy amma ci adduna rek la ñuy soxla kilifa organisé adduna rek foofu la loolu la ñuy doy kilifa diine loolu lañ ko doon doy doy wuñu koy ma xeer mais fii lañ koy doyee kon loolu jullit ñi daf leen a yitteel comme nag nii mu demee nga xam ne xëy na li ñu bëgg mënaguñ ko am ci mën a am koo xam ne l'islam lay présenté cent pour cent loolu kon bu boobaa li ci fës mooy jullit ñi daje xool ñii taxaw kon ci jàpp ne xëy na moo gën a jege ci taxawal li ñuy bëgg ñoom bu mënta taxaw yi lépp moo ci tane parce que moo ci tane ci fës loola bu boobaa kooka jullit ñi war nañ ko jàppale kenn jàpp ne moo ci tane loolu nag kenn ku ne benn mbooloo dajaloo gëstuñ ko seen bopp génn ci fatwa jox ko nit ñi ne natt nañ ci nattukaay yi lislaam ak li ñu gëstoog li ñu xam ci moom ak lépp kii daal am na yaakaar ne moo tax ne bu dul loolu nag kenn ku ne yaay dem sa ijtihaadu bopp rek kenn ku ne yaay fekkee dañu génn ci dara kenn ku ne nga def sa góorgóorlu bopp ni nga leen xame wala ni nga leen déggee wala ni nga gëstoo wala ni nga yaakaare ba jàpp ne moo ci tali ndax borom bi dafa dem def ay janaaxool yi salmi faj nax la xam koo xam ne jàng na jëm ci ne la lu baax laay def ah te amul yenn borom yu ko mën a wett borom nee na bu la bëggee naax gannaaw bi wa in yuridu an yaxda'uka fa inna xasbaka Allah huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin loolu itam tegtal bi mooy xam ngeen ne jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa Ruum ak waa Furs doon nañ xeex te ñoom daal ñëpp duñu kenn kenn nekku ci ci lislaam waaye nag am na ku ci xaw a gën a jege jullit ñi muy waa Ruum ndax ay nasaraan lañ te borom bi nee na la tajidanna ashadda an-naasi adaawatan lilladiina aamanu al-yahuud walladiina asraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu allazina qalu inna nasara aqrabahum mawaddatan allazina qalu inna nasara moo tax foofu alquran ñëw faral waa ruum ne xulibat ruumu fi adna al ard wa hum min baadi qalabihim sa yaqlibuun fi bid'a sinin lillahi al amru min qablu wa min baad wa yawma isin yafrahu al mu'minun bis bu ruum gañee julli nit dañ kontaan doonte du ñuy jullit waaye ñu leen xaw a gën a jege danañ kontaan parce que itam li nga bëgg xëy na mën a koo amal benn yoon mais par étape la koy am fukk nga bëgg boo mënee am juróom tey baax na moo gën a jege fukk waaye boo nee dara baaxu rek naa bàyyi lépp benn yoon maa ngi ci benn ba tey amaguma benn boo mënee am juróom baax na kon loolu alxuraan taxawaay boobu mu taxaw foofu ba sóoratu ruum awsaan sax wàcc ci sóoratu ruum ñu ngi koy jàng taxawaay boobu la wax ne bis bu ruum gañee furus yow ma isin ci koo xam ne bis bu gañee woon ka ca des yafraxul muminu àlla akal <laughs> lu kooka a <laughs> loolu moom nañ ko bokk seet waaw njiit surtout mbu njiitee bootee l'islam yi lu mel ne alfalaah ak ibaadu rahmaan ak ak yu demee noonu nga xam ne ay mbooloo lañu organisé wu nañu nekk mbooloo tànn ba wut ay commission dem giseeg ba ñu am loo xam ne moo xaw a jege ñu yaakaar ko ñu génne ko jur ñi ci bopp rek de sama yoon nekku ci moom kooku moom kooku moom parce que munkar la waaw ah. li am moom munkar la munkar nag da ngay jéem a seet noo ko noo ko mën a dindi sa kem kattan waaye am naa atte yii nu muy atte moom munkar mun koo weesoo léegi na nu mu gën a mën a wayefee di jeex di jeex di jeex ba ba muy egg ca bañ bëgg gënaw mën a buñ daa tëb egg ca ba war a nekk ñu amee ba tane bu tane booba la ñu kon loolu jullit ñi war nañ see am boobu taxawaay insha allah jazakumullah xayran xam naa bii mooy mujje a kayit yi des na mhm. presque kii dafay laaj ndax jullit bi amee janaaba mun na laal kaamil mu saf ak jigéen bu amee ja kii ngant gis baax ak yooyu ndax mun na dugg jàkk ji déglu waxtaanu diine yi déedéet ku amee janaaba mënta laal kaamil jigéen bi amee ngant it mënta toog ci jàkka di déglu waxtaanu diine da leen di toog ci bitti waaye du mën a ci jàkka voilà defe naa waxtu bi jot hmm. kon incha allah yëkkat nañu jotaal incha allah ñu a dem ci